ren jii ci atum 2018 ñu fas yéene bokkaat ak jataay yi fas yéene bokk ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañu tànn ngir ñu ànd war a ànd ak ñun ci jàngat ay tomb yoo xamante ne jàpp nañ ne buñ ko bokkee jàngat danañu amal njariñ amal njariñ jullit yépp suñ borom yi nga xam ne moo ñu may ba ñu tàmbuli jotaay yii ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu may bañ àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp nag ñu koy def ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti tey muy sëñ Abbas Mbakke ñu ñaan yàlla yàggal ko fi te kàttanal ko ba li mu yéene liggéeyal maamam lépp li mu yéene liggéeyal lislaam yàlla may ko mu àggale ko fu kawe njottam te ñu ñëpp ñu ànd ci ak moom lii di lenn rek ci liggéey yi nga xam ne njaboot gi ñu ngi koy participer di ko def ci liggéey yi nga xam ne moom lañu ñu féetale woon jëmm ji nga xam ne moo sañ ci dëkk bii nii te muy borom Daaru Muxti kon ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def rek baaxoo nañu bu ñuy tàmbali jotaay yi Sëriñ Basiiru Mbàkke moom borom Daaru Muxti moo fi daan teew ngir ànd ak ñun ci ubbi jotaay bi waaye ñu gis ne at yépp ki nga xam ne mooy Sëriñ Abdou Samane Mbàkke moom Sëriñ Mour aw Balla di imaam ci jumaa ji di tamit ku wax ki nga xam ne moo jiite commission culturelle bi yëngutu ci wàll gii nii nga xamante ne moo ci sunu njit sëñ bi boole nag ñoom liggéey bi mu ci dox doxin waa am solo tamit at yi yëpp moom la sëriñ bi yabal ci jataay bii nii ngir mu ànd ak ñun ubbi jataay bi ànd ak ñun daj jataay bi tamit ba keroog ñu àgg ci mujj ni nga xam ne tamit noonu la ko baaxoo def incha allah ñëwaat na ngir ànd ak ñun jotaay boobu ñu ñaan yàlla kattanal ko moom tamit ba li nga xamante ne waar bii nga xamante ne ci la nekk di ci yënguti ci di ci bay yàlla kattanal ko ci te may ko ci ndam te may na ko ci ñun ñëpp kon bala ñuy euh, dugg ci waxtaan wi rek ak dalal suñu gan gi nga xam ne moom lañuy ñuy fas yéene ànd ak ñun moom lañuy ñuy yéene àndal tey ci bis bu njëkk bi muy Serigne Mbacke Diop ci tomb bu su am solo bi nga xam ne moom la ñu moom la fas yéene waxtaan ak ñun dañuy njokk jox kaddu gi rek sëriñ Abdou Samane Mbacké su ko defee mu indi ay kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti muy sëriñ Abbas jaar ci sëriñ Basiru Anta imaam ñëw ci moom mu fas yéene ko jot li mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci jataay yi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Samad Mbacke. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu mbokki taalib yëpp. ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp. ñu ngi jiital ci suñ nuyoo ak suñu siyaare sëriñ Abbas. di ñaan yàlla yàggal ko dëggal taxawaayam yàggal ko ay naala. ñu ngi sant borom subhaanahu wa mu ñu baax woon daaw. ñu teewoon fii ñu demaat ba am fukki weer ak ñaar mu baax baax ñu teewaat ko bari na ñu ko teewoon daaw te teewuñ ko ren bari na ñu ko fekk woon daaw te fekk wuñ ko bari na ñu ko fekk woon man fekkewaat ko te mën ñoo teen ko wala mënuñu ko kon yàlla subhanahu wa taala la dimbaluñu bañ mën a teew te teew koy sant ba alhamdulilah ndokkeel mboolem jullit yépp ci weeru koor mag bi nga xam ne moom tàmbali ñaan suñu borom tabaraka wa taala dugal ñu ci jàmm génn ñu ci jàmm tàmbali ko bismillahi rahmaani rahim àggale di doole jottali kàddu yoo xam ne ci sëriñ Basiru la jóge jóge ci sëriñ Abbas dañoo baaxa woon saa jotaay ñëwee yaar yi sëriñ Basiru ñoo koy ñoo koy ubbi kii ubbi kay tëj sëriñ Bachirou Anta Niang moo daal bi jotaay bi bu ba tey njeexte la sëriñ Bachirou moom sëriñ Abdou Khoudoss ñëw tëj ko waaye àdduna dafa def loo xam ne ku fi yàgg tële dara teelu lu ne nga teewoo ko yàlla danga ko mën loolu tamit mu coon ngàndam tey ma ko fi wax ci kàddoom kàddoom yu jóge ci sëriñ kàddu sëriñ Abbas sant muassasa bi baax a baax a baax seen taxawaay seen seen liggéey suñu wax ne ne yéen moom ngeen di liggéeyal pas-pas nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa tobbalal maam Cerno Ibrahim muy jàng ak jàngale ak yeete ba tey yéen nga ci la ko sëriñ Tuubaa waxoon maam Cerno Ibrahim bi ñu fayee taal ba mu ñu wax ko ko def ko ne demal taal ko te ne jàng da ko taale foo xam kenn du ko fay taal ba yooyu ñu taal kenn du ko fay mooy jotaay bi tey kon loolu sëñ bi ne mi ngi ci ànd ak te leen bàyyi xel ngeen xam ne teewu fii ci jëmmam waaye xelam ak xolam mi ngi fi fi ngeen toll mi ngi seen wet yéen baax yéen marché bi dana xam ne weer wi ngeen tànn def ci waxtaan wi day weer am solo weer yëpp lu suñu borom bëgg weer yëpp la suñu borom moom waaye weeru koor la ci gën a bëgg moom la ci gën moom waxtu wu nekk tam lay jege bi ne fi waaye waxtu weeru koor ci lay gën a jege bi fi waxtu wu nekk lay nangub liggéey waaye waxtu weeru koor ci la gën a nangub nekk lay nangu ñaan waaye waxtu weeru koor ci la gën a nangu wax naa ko biig rek ci histoire euh, ci suñ borom euh, waxtu ne lay gën a jege ci luy waaye weeru koor ci mooy ci weeru koor wi nekk tey ci lañ xeexut badar ci fukki benn ci weeru koor ci lañ badar xeex badar yéefar yi ak muy jullit ñi waaw yéefar yi nekk lu bare bare bare jullit yi nekk lu néew a néew ñett téeméeri nit ak fukk ñett xeex ak lu na junni nit yéefar yi ëpp ëpp kattan man-man dàq xeex ëpp ngànnaay ëpp alal xeex ak musulman yi ñett téeméeri fukk ñett gañe leen loolu loxo suñu baraam a ngi ci loolu ci weeru koor la xool ci weeru koor rek ci la ubbi woon fatxu Makka ci la amoon ndax ngeen ne bi ñu defee pacte diggante yéefar yi ak ak musulman yi euh, def seen accord musulman yi amuñu sañ-sañ di ak ci waxtu wi nexe wala dugg kaar waxtu wi nexe dañuy am autorisation yéefar yi may leen ko waaye bu ubbee makka fatax makka ci le 17 ci ramadan ci lañ ko bi ci le musulman yi am sañ suñu dugg makka waxtu wu nekk génn waxtu wu nekk du ñaan du ñaan ci genn autorisation loolu ci weeru koor la xewal boo ñëwee fi ci Afrique wax na ko rek ci 6 yi xeex woon ak Israël daal dangul occupation Chennai ak canal de Suez tubaab ba américain ñu ngi ci ginnaaw Israël kon dafa mel ni weeru koor moom suñu boroom waxtu woowu lay gën waxtu ma lay gën a ci lay gën a jàppale mu def bàyyi ci waxtu koor la rafet may jàppat ko liggéey bii nii muy demee mbir feeñ na ci ndax buñ ko defoon benn weer bu weeru koor mën naa bañ a demee nii kon noonu suñu borom jàppalee lu badar jàppale ko ci musulmaan bi Makka jàppale ko égyptiens yi bañ libre canal de Suez ak Sénaay ki la suñu jàppale ba lii dox ba dox ba négatif waaye ku am xel dafa laaj xam doxinu jamono xam métti jamono xam xat-xati jamono xam ne lii moom wax du wax lu yomb léegi ko tàmbalee tey mu seen ko jël benn bés te dara maanaam ko def mu ko ba ba dara xew bañ ko loolu mbir a ngi ci biir kon jàpp suñu borom a ngi ci dañu wax ne léer mu dut nga war mboota ko jàppale kon yéen ñu seen seen suñu borom seen ginnaaw sëñ baa ngi seen ginnaaw baax di leen ñaanal ko ñaanal sëñ bi xam ne sëñ baa seen wet wet mu ngi leen déglu mu ngi seen ma nga fa yàlla nañ si tàmbali bisimilah rahmaani rahiim génn ko alhamdulilah ba ci jëf wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum. ak yeneen borom xam-xam yoo xamante ne moom fréquente na leen waaye yëmu ci loolu dugg na tamit ci daara yi nga xamante ne ay école franco arab lañu ñu mën ci tuddu mahad durus al islamiyya mu amé fofu certificat d'études primaires amé fa tamit euh, brevet amé fa tamit bac ginaaw bi nak la tambuli yëngutu ci jàngale ci biir école yooyu noonu waxtu yi ñuy wax yeen mi ngi jàngale ci école bu ñuy wax maadul khalil al islami fi fofu ci touba waaye yemul foofu tamit mi ngi jàngale ci ci beneen école bu ñuy wax fatul manaan ak beneen école bu ñuy wax mu nawil bunyan kon man nañu wax ne moom yëngutam yépp weesuwul jàng ak jàngale ak gëstu ndax ci bir gëstu boobu tamit bind na ay gëstu yu bare bare bari yo xamantene war na tollu ci ñeent témèr yi gëstu yo xamantene ne moom bind nako ñu mën ci tudd rek ay ñu mën cee tudd al muridiyya wa tasawuf al islami mën cee tudd benn bu ñuy wax an nafais al man ca tudd tamit al mawahib al laduniya fi siratil mbakkiya ak yeneen gëstu yoo xamante ne def na ko kon kooku ci gàttal rek moom la ñuy fas yéene àndal ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey muy woo goo xam ne murid yi woo nañu ko wàllu taalif kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ mbakk Diop ci tom bu am solo bii yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko xam naa ne du ñàkk bu fekkente ne waxtu may nañu ko su waxtaanee ba noppi ñu jox kenn ci mbokk yi nga xamante ne moom la àndal mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci li mu doon waxtaan bu fekkente ne am na ay laaj yoo xamante ne aju na ci li mu doon waxtaan incha allah gis na ko jox mu tontu ci laaj yooyu kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mbacke Diop yàlla na ko yàlla defal tawfiq tafal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين غير الرجوان والتمكين ومن اقتفى على آثارهم إلى يوم الدين ورضي الله عن حبيبنا وقدوتنا الشيخ أحمد الخليل مبكي دين مبكي طالبي جناو بنيو سنتي الله برم بي سبحانه وتعالى بجلدي يونس عليه الصلاة والسلام أكي صحابه ñi ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di assalaamu aleykum nuyoo yi ñu ci jiital saaxibul fadila wal al am li yàlla borom bi subhanahu wa mu sàmm ko aar ko banaa li nga xam ne moom la naalal yoonu murid ak lislaam mu yeggale yépp dañu ànd ko ak moom di ziyaare bu baax borom pak bu bi di darul mu'ti di al khalifa sering abbas mbake mu borom daru di ñaanal moom suñ borom yok fan wi ba na li nga xamne ne la nalal borom daru mu yeggale yépp ñu ko ak mom di ziyaare tamit al alimul allaama abdul rahman mu sering abdul khudus di ko bu baakha baax di ñaan yalla suñ borom sam ko ar ko ci liggey bu reuy bi nga xamne mi ngi koy liggéeyal lislaam ci tasaari njàngaleem sëriñ bi waaye tamit jàngalewaat téere yi nga xam ne moom lañ baaxoo jàng ci majalis te sama classe gi ñu bëree bëri jàngee nañ ci moom te tooguñu ci ab jataayam di ziyaare bu baaxit it sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moom lañ fekk ci jataay bi mu tijji ko ci kàddu yu rafet yi nga xam ne wax na ko di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala sàmm ko aar ko ak mbooleem njabootu maam Cerno gi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci mel ne Serigne Bassirou Anta Niang di ziyaare bu baaxit suñu xarit suñu soppe Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo waral ñu teew ci jataay bii muy Serigne Ahmadou mu Serigne Mouhamadul Mortada mu Serigne Cheikh Faty Fall mu Maam Thierno doon koo xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci xam-xam koo xam ne tamit ñëpp xam nañ taxawaayam ci tasaare njàngaleem sëriñ bi ak njàngaleem boroom daaru di ñaan yàlla sàmm ko aar ko di sant bu baax sëñ Kara ak sëriñ Moustapha Ndiaye ci taxaw bu am solo bi di sant tamit mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal bàyyi ko fële Touba muy sëriñ Cheikh Silla Taalib mi nga xam ne moo nekk suñ wet di gëstukat di waykat way lu bëree bëri di ziyaare tamit sëriñ Baye Modou Babou ak sëriñ Massamba Gueye ak sëriñ Jili Diop ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fi ngir teewe si jotaay bu am solo bi di sant yàlla bu baax bi nga xamé na may nañu ñu dugg ci wéru mag wi nga xamné moy wéru koor doon sangup mbolém wér yépp suñ borom gënalé ko ci wér yépp tamit ay xew-xew yu bari bari yenn yi suñu wajur suñu sëriñ sëriñ Abdou Samad tudd na ci mel xare badar lu ci mel ne Makka ak yenen xew-xew yu bari bari yo xamanteni xew na ci suñu borom subhanahu wa taala jagleel ko mu doon weer wo xam su ci la yalla di tijji mbollem bunti aljana yeb tej bunti sawara yeb jengi mbollem saytane yi kon ñi ngi ñaan yalla borom subhanahu wa taala mu may ñu ñu dugg ci ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin gep jaamu yalla guñ ci def mu nangul ñuko zahiran wa batina xamna tem bi nga xamne mom lañ tannon ngir waxtane ko moy tem bi serigne kara sank muy inayatul muridin bi taalif wa tasnif muy yittewo gi nga xamne mom la murid yi bind ak lu jëm ci domaine bobu mu don tem bu am solo bu mata waxtane xeyna yaakar nañ ne tem la bo xamne ne wuñ fuñ ko waxtane ci barab yu melni waye nak don tem bo xamne suñ ko waxtane dana feñal lu baree bari ci li nëbbu woon ci li nga xam ne moor yi liggéey nañ ko ci wàllu xam-xam waaye doon tamit thème boo xamante ni suñ ko waxtaanee dana ñaaxaat ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci wàllum bind ak taalif ñu gën a fonk loolu nga xam ne ci lañ nekk doon liggéey bu am solo boo xamante ni bokk na ci liggéey yi tax xam-xam des waaye bokk na ci liggéey yi tax xam-xam tasaaroo di sant bu baax waa muassasatu Al Wafa bi nga xam ne ñooy taxawu jataay bu am solo bii ngir dundal weeru koor waaye ngir berndeel ruu yi ci xam-xam waaye tamit ngir xamal ñi nga xam ne dañoo fàtte woon ak jàngal ñi nga xam ne dañoo xamutoon ak yee tamit ñi nga xam ne dañoo dañoo réer doon muassasa boo xam ne seen liggéey ci yoon wi ak ci lislaam ñëpp teg nañ ci seen bët di ñaan yàlla sàmm leen aar leen ci barkeb sëriñ bi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ak mam Thierno Ibra Faati ndamal daru xamna naa su ko bi niñ ko xalaté moy ahamiyatu ta'lif wa tasnif Mui importance bi nga xamné ne bind am ko dañ leeralit maqasidu Seexul khadim radiyallahu anhu ahdafuhu fi moy mooy way yi serign bi amone ba tax mu don bind wala mu don talif dañ leral len ci athaaru sayxul xadim radiallahu anhu al ilmiya muy li aju ci lifi fi sëriñ bi bàyyi ci wàllu xam-xam dinañ andi tamit lenn ci ay muallafaat yoo xam ne ak njabootam ñoo ko taalif ak lenn ci ay sëtam ak lenn tamit ci ay muallafaat yoo xam ne ñiy dund ci jamono jii ñu toll ñoo ko taalif di ay boroomi xam-xam danañ leeral it suñ taxawaay ñun murid yi ci xam-xam bu am solo boobu ak téere yu am solo yooyu nga xam ne mag ñi bàyyil nañ bàyyil nañ ñu ko fi ban taxawaay lañ ci war a amee xam naa kon dañuy daal di dugg rek ci thème bi mu mubaasaratan euh, wax tamit xëy na li tax ñu tànn thème bi dëgg-dëgg mooy ngir feeñal participation bi nga xam ne murid yi def nañ ko ci bind muy murid njëkk ya ak murid jamono ji ñu toll muy ñi ci ay sëriñ ak ñi nga xam ne ñoo ci ay taalibe waaye tamit bokk na ci ñaareel bi mooy fexe ba gën a ñaax ndaw ñi ci ñu yittewoo wàllum bind waaye gën a liggéeyal sëriñ bi ci tasaare ndono li nga xam ne moom la fi bàyyi ci wàllu xam-xam waaye tamit bokk na ci li tax ñu tànn ko muy jàpp nañ ne thème la boo xam ne comme niñ ko junjee sànq ci tàmbalimaay bi yaakaar nañ ne xëy na buñ ko waxtaanee tamit bariwut ci ay barab yuñ koy faral di dégg ñu koy waxtaanee waaye tamit ngir mu nekk ab tàmbalimaay boo xam ne dana tax ñiy yëngu ci xam-xam gën a liggéeyaat ci wàllum taalifaat yi nga xam ne moom la mag ñi taalif. fexé ba sédélé ko ay xaj gën ko tansiq def ko ci ay mujalladaat boole yi nga xamné ño ci wara and ànd tamit def ko ci ay mawsu'at boole yi nga xamné ño wara and su ko défé kon mi talif batub arab la danañ wax talif di wax tasnif ñaar yépp suñ ko waxé bind lañ ci jublu donte ne sa xëy na léeg amna am na ay boroomi xam-xam yam dañ koy teqale di wone talif ak tasnif amna na budé ko melni bi ci biir am mbindam day mel ne du ko faral di teqale ndax léeg-léeg ñuy gis muy jëfandikoo baatub tawaalif léeg-léeg ñuy gis baatub tasaanif wala tasnif wala yu mel ci biir mbindum sëriñ bi su ko defee nag baatub taalif mooy jamu taalif masdaru allafa nga xam ne foofu lay war a bàyyi ko buñ ne allafa hadha al kitab min taalifihi ay min wadaihi mooy ki xam ne moom moo ko teg moo teg jëm mi li ne ci biir téere bi moom moo xalaat ay xalaatam sukkandiku tamit ci ay sukkandikukaay yi nga xam ne soxla na ko ci li muy bind man cee loo man cee indi loo xamante ni lu tënku lay doon wala loo xamante ni day yaatal wala loo xamante ni day gën a leeral loo xam ne lu lëntoon la kon baat bi mën nañu wax ci tënk bu gàtt rek mëneef na cee wax loolu ngir bañ a jël ci waxtu wi lu bëree bëri su ko defee nag jëm mi taalif ci boppam am na xiima muy am na wàccuwaay bu rëy ku ne xam ne ne bind mooy saxal xam-xam xam bind moo koy saxal doon rek ay riwaayaat yoo xam dañ koy nettali di ko jëlee ci ay nit ndax nit ñooñu di ko nettali dañuy dem te léeg-léeg am na ñoom te ni saa suñ demee danañ yóbbaale xam-xam bu bëree bari waaye xam-xam boobu su fekkee ne jamono ja ñuy dund bindoon nañ ko yaxal ko bàyyi ko fi mën nañoo faatu ba am ay junni at wala ay téeméeri at ba sax lu ëpp loolu lañ bindoon day continuer ñu koy jariñoo ba léegi moo tax waykat ba waxoon alxattu yabqa zamanan baada kaatibihi wa kaatibul xatti taxta al ardi madfunu nee na bind mooy sax ginnaaw bi nga xamee ni ki koy bind bind na ko ba dem ba dugg ci biir suuf mbindam moomee day continuer di sax téere yii ñu fi gis yépp ñu koy jàng yu ci bëree bëri ñi ko bind ñi ngi doon dund ci premier siècle wala deuxième wala troisième wala yu ni mel ak ñi nga xam ne ñoo jamononte ak sëñ bi wala ñi jiitu waaye teewul ba léegi téere yooyu ñu ngi koy jariñoo waaye ana lan moo ko saxal mooy bind moo tax beneen waykat waxoon ne innal kitaabata tabqa ba'da katibiha wa saaxibul xatti taxtal ardi madfuunu nga xam ne moo bële daanaka taxul ñu sore mooy bind mooy saxal xam-xam donte nit ki sax faatu na jóge fi ay ati at yu yàgg lool al imaam aliyu karamallahu wajahu dafa waxoon lu am solo daa waxoon mufaddal ibnu amr ne uktub wa butha ilmaka fi ixwanika na nga bind tay nga tasaare xam-xam ci say mbokk fa in mitta fa awris kutubaka banika so faato na la werne sa ter yoyu sa njabot ñokay don fa innahu yati ala nnaasi samanu harjin la ya'nisuna fihi illa bi kutubihim mu ne ko jamono gi ñew ci kanam jamono jo xamanteni xex ak xulo ak ciow yu bare bare dana am waye lan la nit ñi di wetliko moy nga xamee dañ ko bindon kon loolu day wane na boroom xam-xam yi fonkoon nañ bindu lool joxoon ko yitte kenn ci borom xam day wax ne yanbaghi lil kaatibi an yaghtanima tasnif fi muqtabali al umri li anna awailahu zamana talab wa awaaxiruhu kalaalul xawaas nee na dana war ci bindkat bi mu yittewoo taalif ci jamono ji nga xamee ne ci la nekkee ci digg dooleem muy jamonoy ndaw marxalatu sabab muy étape bu am solo boo xam ne léeg-léeg nit dana ci toll suñ borom may ko mawhiba ci wàllum bind wala ci wàllum way wala yu ni mel waaye da koy sàgganee ba mu jàll du ca liggéey dara ba mu weesu muy récc fekk na euh, réccu dana fekk jëf weesu nee na njëlbeenu dund mooy jamono jaa xamee nit ki ci la war a sàkkoo xam-xam ndax nit ki balaa bind day jàng day jàng ba xam jàng xeeti xam-xam yu bëree bari peeg lu bëree bëri dooga mën a taalif bind loo xamante ni su ko joxee ay nit danañ ko mën a jariñoo mune nak mujjantelu dundu nag nagak ak ñak jot ak yooyu yépp day ñew di galankor nit ki ba lim beggon ci bind dotu ko man kon fofu dañ fay soñu ndaw ñi nga xamne ne tollu ci jamono wara mëna bind nañ gëna a wo bind bu baax baax bañ ko sàggane ndax niñ ko waxé rek mawhiba la bo xamne bu lako suñ borom mayé soko sétané man mën la ben lañ wax ne mom la dund waye lim bind ci ay téré borom xamami néna buñ ko xayma ci ak dundam dañuy gis ne bis bu ne war naa bind luy tolloo akub kuraasa te gis nañ ne nit du judd rek tàmbalee bind nit dana bind ngir fent lu bees indi lu bees léeg-léeg dana danañ gis nit koo xamante ni la muy bind day doon domaine bu bees tàq boo xam ne ñi ko ca jiitu woon kenn mosu caa bind mu bind loo xam ne lu bees lay doon kon kooku nit ki ko bind moom moo ko fent nit tamit dana bind ngir mottali lu manqué woon léeg-léeg da gis ab téere nit bind ko waaye téere bi dana am ay manqué manqué yu ciy des ci yenn jotal yaak yenn bunt yi yenn leeral su ko defee nit ñëw bind ngir mottali loolee nit tamit dana bind ngir saraa loo xam ne dafa tëju woon téere boom dafa tëju dafa tënku que lool te buñ ko sarawut kenn du ko xam nit tamit dana bind ngir gàttal loo xamante ni lu gudd la te loolu buñ demee ba ci biir Serigne Touba dañu gis ne lu mel noonu daan na ko faral di def nit dana bind ngir boole loo xam ne lu jaxasoo la woon ci ay barab lii nekk fële lii nekk fële mu boole ko tuddee ko benn téere wital ko benn onwaan nit dana faral di def loolu wala tamit nit dana bind léeg-léeg ngir jubbanti njuumte leen nit dana bind téere la bind am ay njuumte yu ca am ci wàllum pas-pas wala ci wàllum histoire wala ci wàllum domaine yu bëree bëri keneen ñëw bindaat ab téere jubbanti njuumte yi nga xam ne moo ca nekk kon yooyu mën nañu wax ne mooy juróom ñaari sabab yi tax nit di taalif ab téere su ko defee nag Serigne Touba radiyallahu anhu moom yan jubluwaay la amoon ba tax mu doon bind jubluwaay yi sëñ bi amoon ba tax mu doon bind loolu rek jàpp naa ne moom rek mën na tebu boppam waaye dañ ci jël yenn rek yoo xam ne dañ koy junju wane na bokkoon na ci li tax sëriñ bi doon bind bi ci jiitu gis nañ ne am na ay téere yoo xam ne lu jiitu sëriñ biy ñëw taalif ay barab li nekk fële li nekk fële mu boole ko tuddee ko benn téere wital ko benn onwaan nit dana faral di def loolu wala tamit nit dana bind léeg-léeg ngir jubbanti njuumte léeg nit dana bind téere la mu bind am ay njuumte yu ca am ci wàllum pas-pas wala ci wàllum histoire wala ci wàllum domaine yu bëree bëri keneen ñëw bindaat ab téere jubbanti ñoom tey nga xam ne moo ca nekk kon yooyu mën nañoo wax ne mooy juróom ñaari sabab yi tax nit di taalif ab téere su ko defee nag sëriñ Serigne Touba radiyallahu anhu moom yan jubluwaay la amoon ba tax mu doon bind jubluwaay yi sëñ bi amoon ba tax mu doon bind loolu rek jàpp naa ne moom rek mat na te bu boppam waaye dañ ciy jël yenn rek yoo xam ne dañ koy junju wane na bokkoon na ci li tax sëriñ bi doon bind bi ci jiitu gis nañ ne am na ay téere yoo xam ne lu jiitu sëriñ biy ñëw taalifoon nañ ko waaye téere yooyu guddoon na guddaay boo xam ne amaana léeg-léeg nit bu ko bëggee jàng dana am jafe-jafe sëriñ bi ñëw nag daan ñu koy gàttalal tënkal ñu ko ci tënk boo xamante ni danañ ko mën a jariñoo mooy li muy junj ci masaalikul jinaan wajattu qad sanafa al axbaaru fiihi dafatira laha asraaru lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiha hada al jiilu wala jullu hada al jiil nee na fekkoon naa ay taalif yoo xamante nii ay kàngam ay fóore ñoo ko taalifoon taalif yoo xamante ni làmboo na ay secret yu baree bëri waaye nee na li ëpp ci waajil bii muy ñem jamonoonteel dañ koo dëdd ngir guddaayu téere ba am na feneen fi muy wax ci aljawharu nafis li kay yakuna tuxfatan li kulli man araada xifsahu min abnai zaman ngir mu doon loo xamante nii day doon ak may jàpp ni ci ko am dana ko bëgg a mokkal ndax ku ne gis na ne yi ñu tuddee ay mansuraat muy wesar mokkal ko day jafe lool waaye suñ ko wayee ba mu nosu dana yomba mokkal loolu kon bokkoon na ci li tax sëñ bi doon taalif muy fekk loo am te ni wesar wu gudd la mu way ko gën koo tënk gën ko nos ngir ñu man koo jariñoo bokk na tamit ci li tax mu doon taalif mooy dundal as-shari'atul mutahhara muy sharia bi nga xam ne mooy aji laab waaye tamit xaqiiqa bi nga xam ne mooy al munawwara da doon bind ngir dundal ko loolu wax na ko ci tarjumaanu xasida gam ni mi ngi ko tënkee lafdul jalaala muy allahu wajal ta'lifi hayatan li sariatika walil lil mangi lay ñaan nga def samay talifat man sëriñ bi mu do lo xamante ni day dundal sharia waye do lo xamanteni day dundal xaqiqa bokku na ci li tax sëriñ bi doon bind ba tey mooy tajjid tajdid mooy yeesal da doon yeesalat ndax ku ne xamne ne ne sëñ dafa ñew ngir tajjid ngir yeesalat diine l'islam ku yeesal nak limi yeesal dana yaatu lol dana yeesal ay xalaat dana yeesalat ay mbind yoo xamante ni xëy na jiitu woon na waaye am na yu ca yoo xamante ni fasu na wala am na yu ca ne di ay njuumte ay jubbanti yoo xamante ni sëriñ bi di ko def ci biir ay téeréem moo tax mu ne tawaalifa saadaati ujaddidu naasihan li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami mu ne taalif yi nga xam ne ay sangam yi jiitu woon ñoo ko taalifoon moom la ñëw di ko yeesal waaye nag di laaye biir xam ne kon day boole yeesal ci bind waaye di laaye biir doomu aadama yi tamit bañ mën a xam fan la ñuy teg seen tànk وانا فنن نويت احياء علوم الدين لوجه هاد بالنبي يهديني دما يينه دوندلات خام خامي دين ييب لول داي ملني داي جيمر رك لم دون واخ تي مغالح النيران فلتقصدوا أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى أولها الخروج من دلال والثاني نفخ خلق الجلال ذلك الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم mooy nee na booy sàkku xam-xam na nga sàkku xam ngir ñeenti mbir yi bi ci jiitu mooy na nga yéene génn ci ak ñaareel bi mooy nga yéene jariñ mbindeef yàlla yi ñetteel bi mooy dundal xam-xam ñeenteel bi mooy jëfe la nga xam kon ñetteelu bi nga xam ne moom la sëriñ bi tudd mooy al ihya ulum moom sëriñ bi liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy soo demee ci xasidaam gi nga xam ne mooy fathul kaafil baaqil mumiit fi sarfi tawajjuhi kulli mubaridin yamut man ngi wax nan wajaa mimma yanfa'u shakhsa bila nihayatin ta'lima ilmin qabila neena bok na ci li am day jariñ nit jariñ loh xamanteni amut daytalu ab yamukay moy jangal nit xam-xam bo xamanteni xam-xam bu ñu nongu la loolu bi bim koy firi day wax ne xam-xam ñaari façon xam-xam la tadris ak tasnif moy jangale ak talif neena bi ci ëpp solo ëpp ci njariñ moy tasnif ndax taalif moo gën a mën a des ci jàngale kase rek nee na képp koo xamante ni yàlla defal na ko mu am capacité mën a taalif kon kooku day war ci moom mu taalif ndax taalif barke ngi ci boo xamante nii néwut ci njàngaleem kase rek wax na ci wax ju yaatoo yaatu ci diggante boobu moo tax boroom annafahatul miskiya di muhammad abdullahi al alawi wax ne ne sëriñ bi lim njëkk a def mooy da doon jàngale waaye dem na ba mujj daal jëmale ay mbiram yépp ci taalif ci lay waxee naan istagal tasnifi wa tarki taalimi bi nafsihi li anna al aalima afdalu lahu tasnifu min at-taalim nee na dafa mujj nam doon jàngalee ak yitte jam ko joxoon dëgg-dëgg mu xaw ko wàññi gën a dëgmal nag ci taalif ay téere ngir taalif mooy li nga xam ne moo gën a mën a des waaye moo li ëpp solo ci boroom xam-xam ci jàngale kon loolu doon lu am solo lu mat a bàyyi xel su ko defee nag jëmmi sëriñ bi ci boppam nag ak lim taalif ci ay téere sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu xam nañ ne bokk na ci borom xam-xam yi ëpp luñ taalif borom xam yi nekk Afrique ak sax bu dut bokk na ci borom xam-xam yi ëpp luñ taalif loolu nag day wane ku suñ borom mayoon la ci wàllum xel mu yaatu waaye tamit ku suñ borom joxoon tawfiix ci ak dundam defal ko barke ci ak dundam ndax ku ne xam ne ne sëriñ bi fanweeri at ak ñett mu nekk ko ci loxo tubaab yi kooku amutoon jot. amutoon temps waaye teewut ànd ak li muy ñàkk ñàkk ñàkk jot jamono jooju liggéey na ci loo xamante ni nit dana am jot te du ca mën a liggéey lu toll noonu euh, yim taalif nag bari na lool maneef na ko dàkkantelee li ko borom nafahatul miskiya di waxee rek mooy suyuti samaanihi al imam as-suyuti ku ne xam na ko ci ay taalifaatam yu bari daanaka fànn boo gis ci fànni xam-xam yi taalif na ci ndax da wax ne moom fànn xam-xam bu mu jàng rek da ciy taalif na yenn fànn yu ndaw ndawaan yi boo jàngee histoire yi nga xam ne day mel ne xawoon na caa am jafe-jafe rek ci la taalifut waaye yi ëpp ci fànni xam-xam yépp al imam as-suyuti taalif na ci kon day mel ne moom mooy suyuti yu samaanihi jamonoom moo nekkoon al imam as-suyuti ndax lim taalif bari na lool su ko defee nag moom sëriñ bi ci ay taalifaatam mëneef na ko séddale ci ay xaaj taalif na ci wàllum al aqida al islaamiya muy pas-pas wala tawxid waaye taalif na tamit ci al fiqhu al islaami lu jëm ci wàllum julleek woor ak joxe azakaak añ màkkaak yu ni mel waaye taalif na ci tamit lu aju ci wàllum tasawuf mooy nit nit ki nan lay mën a sellalee nan lay mën a sellalee ay jaamu yàllaam bali muy def mu koy def te yàlla rekk tax lenn ci yi yàq jëf bañ caa dugg muy ay ngistal ay rëy aaw ak yu ni mel ak yu xeet yooyu sëriñ bi taalif na ci lu baree bëri waaye même ci langue arabe langue arabe sëriñ bi taalif na ci lu bëree bëri ak yeneen fànn yoo xamante ni amaana dinañ ko tudd su ko defee nag bu dee yi nga xam ne moom la sëriñ bi taalif ci wàllu xam-xamu ma mëneef na jaa tudd mawaahibul quddus fi nazmi nasri sayxina sannusi nga xam ne al aqida al ashariya bi ñuy askanelee abul hasan al ashari moom la moom la ci way taalif boobu ki ko taalifoon mooy abu abdullah muhammad ibnu yusuf sànnusi ne war naa mat juróom benn téeméeri way ak juróom fukk bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxiid muy jazbatu sigaar an laibin li xidmati muxtaar muy téere bu am solo bu gàtt lool boo xam sax sëñ Modou Lamine Diop Dagana day mel ca nubzatu mubaraka ma ngay junj di wax ne tuwaylifun saxirun lil imam muxtaar alkunti sidi muxtaar alkunti moom moo ko taalifoon sëriñ bi jël ko way ko tuddee ko jazbatu sigaar bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid mooy alxidma almutahara bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid fatul fatahul alim alxabir fi basi ilmin yu addi ila al ajri al kabir bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid manzuma bi nga xam ne da cee way risala ibnu abi zayd al xayrawaani muy bii nekk suñ kanam muy faydul ghani al mughni fi nasmi ma an suluki yughni ngam ne war naa mat ñaar téeméeri bayit ak fukk bokk na ci yim ci wàllum tawxid jaalibatu saada bokk na ci yim ci wàllum tawxid jamul maqamat allati farra ilayha al qawmu ngam ne sara aaya bi suñ borom wax la taxusuhu sinatun wala nawmu bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid faydul alimil xabir xabiril waxid ma la yustaghna anhu min bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid fatu zahiril batin fi nasihati rahili wal qatin bokk na ci yim taalif ci wàllum mooy mawahibul quddus fi nasmi ma nasarahu as-sanusi nga xam ne moom way na ko ñaari yoon bi mu njëkk a way boobu bi mu koy way Maam seli mi ngi dund sëñ Modou Lamine nee na euh, Maam ci la jàngalee tawxid euh, sëriñ Afe ci la ko jàngalee tawxid ak sëriñ euh, yaakaar naa sëriñ maam Cheikh Anta bu ma juumut ñoom ñaar ci la leen jàngalee tawxid ne bi mu koy way boobu ma ngi ko war a fekk Mbàkke Kajoor wala ci diggante boobu lay war doon waaye da koo taalifaat ginnaaw bi ak sëñ Balla Coro ma ngoog sëñ Afe ak sëñ Balla Coro ñoom ñaar la ci sëriñ bi jàngalee tawxid comme ni ko sëñ Axma jubbantee nga xam ne kon bi mu koy way boobu sëriñ bi waragu taam fanweeri at ndax boobu waajuram mi ngi dund te bi muy woote yoonu murit boobu fanweeraatam bu matee ca lay yam waaye ginnaaw bi da ko wayaat bi mu ko wayaatee nga xam ne da koo tënk yemale ko ci asifaat alwaajiba yi nga xam ne moo war ci suñ borom ak yi jomm ci suñ borom ak yi dagan moom ak yónnente yi ci ñoom yi jomm ci ñoom dagan ci boo demee ci almajmuatul kubra wala majmua bi nga xam ne sëriñ du jaañ daaray Kamir dajale woon na ko danga ci fekk téere boobu ma la wax su ko defee kon yooyu yenn la rek ci nga xam ne sëriñ bi taalif na ko ci wàllum tawxid su dee nag jëmmi at tasawuful islaami nga xam ne sëriñ bi da ko yitte woon lool doy na ci sëkk rek masaalikul jinaan bi nga xam ne mu ngi ko taalif ci domaine boobu ngam ne téere yu bëree bëri ci la sukkandiku waaye mën na ñee tudd benn rek mooy xaatima tasawuf daanaka xulaasa la ca moom comme niñ ko xamee nga xam ne booy xool mi ngi war a tolloog eh, ci ay bayit junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett bokk na ci téere yooyu mu taalif ci alam tawxid beneen masaalikul jinaan fi xidmatil mutahharil janaan moom day mel ne ci taam li may wax ne ne urju sala boo xamante ni day jëm ci wàllum fiq ak tawxid ak tasawuf booy xool daanaka tasawuf bi moo gën a bari bokk na ci yooyu munawiru sudur la dal manadili wa inda duur nga xam ne moom mi ngi ci way tere bi nga al imam al ghazali moko talif don borom xamam bo am tane serigne bi day delu ci mom lu bëree bëri muy bidayatul hidaya te bo delo ca an nubzatul mubaraka neena na na ci téere yi mu am mom serigne touba bi mu ba suñ borom dogal mu jang arut ba jekk ko ci lako way tuddee ko mu laynu sudur ginaaw bi ci lako folli folli wat ko mu nawiru sudur bokku na ci téere yoyu maghalihun niran wa mafatihul jinan ngam ne ci tasawuf la jëm mi ngi tolloog téeméer ak juroom ñett fuk ak ñam ne kon leral na ci teggini jang xam-xam leral na ci lu aju ci walum tasawuf ay usulam ak yenn yu mel nonu bokk na ci im talif ci tasawuf jalibatul burur wa dafi'atul jalibatul burur wa dafi'atul ghurur ñam ne kon mom mi ngi ci way momit tasawuf muy tolok juróom benn fuk ak ñatt ci ay bayit waye bokk na ci taayam bu siw bobu nga xam dañ koy jang japp ne qasida rek la muy xoqal bi nga xam ne serigne bi da ci andi lu am solo ci walum tasawuf Muhammad eh, téré bu am solo la bo xamanteni bu mata dirasa mata jangat bokku na ci téré yoyu ilhamul wadud fi mahmud nga amne kenn ci ay talibem la ci tontu amna ñu wax ne serigne mahmud megare momloko la ko sëriñ bi bindalon amna ñu wax lolu ci geussu kadi waye tamit talib na ci adab muy ay teggin muy nahju qada'il haj fi ma min al adabi ilayhi al muridu yahtaj ngeen mi ngi ci way euh ben téré bo xamanteni muhammad alxaaji as-Sinqiiti moo ko defoon ci wàllum teggin sëriñ bi daal di koy jël way ko ci luy tolloog ñaar téeméeri bayit ak fukk ak ñaar donte ne dana ci indi ay way yoo xamante ni da koy jëlee ci ay waykat yu fasanti ko yu wute lool bu dee nag ci wàllum alfiqhul islaami lim taalif ci fiq muy lu jëm ci wàllum julleek woor ak adakaak aj màkkaak yu nu mel bokk na ca tasawdu sigaar tasawdu sigaar doon lu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel euh, lu mat bàyyi xel muy téer la boo xam ne sëriñ bi moom it ci wàllum fiq la ko jëmale ak tawxid ak tasawuf waaye buntub ñaareel ba lépp ci wàllum fiq la ko jëmale su ko defee al aljawharu nafis moom it sëriñ bi mi ngi ko way ci wàllum fiq nga ne mi ngi ci way téere bi nga xam ne alaxdari bu siiw bi nga xam ne xam nañ ko ci alfiqhul maliki yi di war a tolloog juróom benn téeméeri bayit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett bokk na ca silaahu ahlil xawfi nga xam ne fi ilmil fiqh nga bi nga xam ne moom la ci way al imam moo ko taalifaay imam awfi moom ba léegi gëstukat yi ñu ngi wër ban awfi la ndax dafa am ñaari awfi ban la ci war a doon waaye ci al imam al la ko sëriñ bi jëlee su ko defee nag bokk na ci liggéey yu rëy yi nga xam ne sëriñ bi liggéey na ko ci wàllum fiqhul islaam mooy li nga xam ne moom la xam muy téere bi ñu tuddee risala ibnu abi zayd al xayrawaani ñu koy jàng ci majalis ku ne xam ne ne sëriñ bi saraana ko saraa bu mat saraa boobu am nañu ko gis ci yenn ci kilifa yi nga xam ne yore nañ ko saraana ko saraa boo xamante ni saraa bu mat muy risala bi ñu bari xëy na amaana gisuñu ko waaye am na kilifa yoo xamante ni ñoom ñoo ko yor bokk na tamit ci téere yi nga xam ne da koo taalif ci wàllum alsharia al islaamia muy nafaayi suddurar fi kalimaati xayril basar nga ne téere bu am solo la boo xam ne sëriñ bi mi ngi ko jëmale ci xadis nga xam ne arbauna xadisan ñeent fukki xadis la ci andi yoo xam ne ca tàmbalimaay ba wax ne ne xadis yam ci andi yu wér la kon kooku yaakaar naa dana tontu gaa yi dal ci kaw suñu mag ñi di wax naan xam-xamu xadis fonk ñu ko woon wala taxutoon ñu géeju ci wala yu ni mel sëriñ bi bind na ci téere boo xamante nii sëriñ Mod Lamine Diop Dagana tudd na ko ci Irnaul Xadim tey téere bi am nañ ko gis nañ ko doon lu wér loo xamante nii sëriñ bi moo ko bind bokk na ci liggéey yu rëy yi nga xam ne sëriñ bi liggéey na ko ci wàllu xam-xam mooy barzanj bi nga xam ne moom lañuy jàng bu gàmmu ñëwee bu gàmmu ñëwee barzanj boobu ñuy jàng sëriñ Abdou Samad mu sëriñ bu Mbakke bi muy taqdimal abu madiana soy bu kebe ci nusatu sarif boobu nga xam ne liggéey na ci bañ génnee ko ba mool ko wax ne ne sëriñ bi euh, saraana ko bokk na tamit ci liggéey yim liggéey ci wàllum naxwu muy làng arabe muy langue arabe langue arabe bi mooy saadatu tullaab waraahatul i'rab nga xam ne da cee way muqaddama ajrumiya mi ngi tollook ñett téeméeri bayit ak juróom ñett sëriñ bi way na ko ci walum nahwu waaye li ci gëna yéme yéeme ñi koy jàng di yi sëriñ bi andi da wuté lool ak yi ñu xam ci téré nahwu yi misal yu am solo yom da jangal nahwu dila di dila yaraale di la yee di la tàggat di yar saru don lu am solo lu mata bayi xel xamna day melni téré biñ bi doon wax muy mawahibul khudus day melni sëriñ cheikh cioro ak sëriñ afi mbacké lako mamor Maamor Sali jangalon muy sëriñ cheikh cioro ak sëriñ afi mbacké su ko Euh, sëriñ bi tamit am na ay liggéey yu rëy yum liggéey ci wàllum langue arabe alfiya ibnu malik sëriñ bu sëriñ Abdou Samad mu sëriñ bu wax ne ne ba tey it sëriñ bi saraano ko ci téere bi ñu waxoon sànq junj na ca lu mel noonu alfiya ibnu malik nga xam ne naxu lay jàngale nee na sëriñ bi saraano ko kon day mel ne liggéey na ci wàllum luga arabiya muy langue arabe waaye liggéey na ci li ñuy tuddee as sharia al islamiya muy tawxid ak fiq ak waye tamit non la amone yene fane fànni xam-xam yep mu bind ci lolou serigne Moustapha Lo nettali na lu mel nonou jele ko ci serigne Modou Lamine Diop Dagana mune moko moo ko ne sëriñ Touba wax na ko ne fane xam xam-xam yep da ci amone yene bind ci tuddu ci yu bare bare lu melne usul lu melne balagha lu melne euh mustalahul hadith xeti xam-xam yu bare bare dal ne nak waye tag yim don tag yonnti bi alayhi salatu wassalam day melne moko galankor ba nga xamene non la ko bëggee ameewu ko noonu waaye fànni xam-xam yépp sëriñ bi amoon na yéen liggéey ci kon yooyu yan la yu ndaw rek ci yi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu liggéey na ko ci xam bu dee ci wàllum julli ci yonente beeg tagg ko liggéey na ci lu bëree bëri waaye xëy na maneef na koo tëb yam ci téere yi nga xam ne moo jëm ci téere xam-xam yi rek su ko defee nag euh, lenn ci njabootu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ak li nga xam ne taalif nañ ko danañ ci tudd rek kenn ci ñoom muy Cheikh Mamadul Moustapha Cheikh Mamadul Moustapha way na lu bëree bëree bëree bari bokk na ca xasida goom gi nga xam ne da ciy marsiyal Mamor Jaara nga xam ne mi ngi ko tàmbalee gaydul aramili waddia fi jamiiha fi usri naw yusrin li waccir raziqi doon xasida gu am solo am na beneen boo xamante ni mu saajala la bu doxoon digganteem ak sëriñ Mot Roqaye bu sa ak sëriñ Fàllu ak am na ñu ne muhammad abdullahi as-sinqiiti la dinaari gànnaar yi muy hal fiikum maajidun nat bun yamun no lay doon xasida gu neex nga xam ne wolof ak arab lay dugal ci biir bokk na ci li nga xam ne Cheikh Mamadul Moustapha liggéey na ko ci wàllu xam mooy def na ay daawaat ay ñaan yu bëree bëri yoo xam ne ci arab la ko bind bokk na ci ñaan yooyu nga xam ne da ko defoon jamono yi am xam ne guerre mondiale bi mi ngi jag jege jege si woon loolu ku dem ci mathura min al xalifatil azam bi nga xam ne sëriñ Mbacke Madina dajale woon na ko mu jëm ci ay dénkaanay Cheikh Mamadou Moustapha ak ay wayam ak yu ni mel da nga ca fekk yu bëree bëri am na xasida gomte ni da ko defoon ci istisqa muy baawu naan mi ngi tàmbalee alhamdulillahi ala wujudi rahmatihi wa lutfihi wal juudi bokk na ci xasida yooyu xasida gi am ne da ko defoon ci taayif ya rabbi xaqe maa rajawtu minka wal takfinil ida maan waddanka kon yooyu yan la rek ci li nga xamne Cheikh Mamadou Moustapha def nako bokku na ci tamit xasida yi nga xamne def nako muy xasida go xam ni maab bi nga xamne ne sànc 1914 ci ndigalul sëriñ bi wax ne ne aubu ila rabbil bariyati musgada yuhassinu li husnal maabi maabi xamne xam gu neex la koku ku delu ci tere biñ waxon muy addiyatul mubaraka mathura min munajati shaykhina al khalifati al azam bi nga xamne mam Cheikh Ndiaye mu baye serigne Ndiaye alim moko bind sëriñ Moustapha Mbay Longoor muraajaa ko ak sëriñ Basiru Silla da nga ca fekk lu bëree bari ci lu jëm ci li Cheikh Mouhamadul Moustapha bind Cheikh Mouhamadul Fadil moom it bind na lu bëree bëree bari ci wàllum way bokk na ci xasida gu siiw googu gim doon jaayante ak sëriñ bi yaa yuha sayxu nafisul murtaja ya fatixan ma qablu kaana murtaja bokk na ci xasida yooyu ya sayidan fil maali qalla sarwaaka wa yaa muhibban fuaadi dëhra maswaahu gam ne da ci siyaare sëriñ bi bi mu koy siyaare ci la way way yooyu ak xasida gi am ne marsi la bu defal Mamor Jaara hiya dunya fa in sarratka yawman fa innal husna qaibatu sururi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay way yu bëree bëri yu mu def moom Cheikh Mamadou Fadil su ko defee euh, Cheikh Mamadou Amin Baara mi nga xam ne kenn la ci njabootuk Serigne Touba radiyallahu anhu moom it liggéey na lu rëy rëy ci wàllu xam-xam bokk liggéey yooyu nga xam ne Cheikh Mamadou Amine Baara liggéey na ko ci wàllu xam-xam muy xasida Munawwirul Bunyaan doon xasida gu siiw goo xam ne ci wàllu xam-xam la jëm bokk na ca xasida goo xamante ni mi ngi tàmbalee alhamdulillahi al mu'til fadli wal karami bokk na ca xasida goo xamante ni mi ngi ko tënkee euh, rabbi ighfirli wali walidi nga xam ne at-tawbatu nasuux bokk na ci xasida yooyu xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee arafi daaru rahman bokk na ci ay liggéey moom serigne bara wayna qasri gom tani ni mi nga mi ngi tàmbale xamdan li rabbin xat tayyaba ku melne Cheikh abdullah had Mbacké suñu abdullah li ci doy war moy ñu bari dañu japp ne bindut amna na jamono ma am sama benn mbokk ñuy waxtaan ba mu koy tuddal li serigne abdullah way mo ne ma serigne abdullah man dama jappone ne bindut dara mané konak ko nak lay jafé jafé moy lég lég dañuy waxtaan ci ñom bam jeex duñ tuddu liñ bind motax tax mag ñi ñu japp ne ñu waaye ñu ci bëree bëri liñ bind kenn xamul num toll suñu na ca ay mindam xasida goo xam te moom da ciy tagg sëriñ bi di ci wane ak taalibeem ataytukal yawma bilan qitaa'i kulliyati yaa xaadimal mutaa'i bokk na ca xasida gi am ne mi ngi ko tënkee yaquduni li kasratil qasaa'idi kawnuka indi mukthiral fawaa'idi bi nuuri jamaalihi natakarramu wa bi xidmatin li janaabihi nata'allamu loolu boo demee ci téere bi nga xam ne sëriñ Abo Guèye dajale na ko da nga ca fekk way yu bëree bëri muy xarxu aadatil gawsil multahat fi xayaati as cheikh Abdul Ahad kon loolu rek doy na ci sëkk ci wane na sëriñ Abdul Ahad bind kat la woon waaye tamit way na tamit jëme woon ci njuge kebe ay way inna man laada bil xadimil muraadi laada bil mustafa sabili rasaadi ak way yoo xamante ni mi ngi ko jëmee tamit ci njuge kebe ba tey inna fi qissatil kalimi wa qaaru na ictibaaran wa ibratan lil ibaadi ak yeneen ak yeneen ak yeneen bokk na ci ñi nga xam ne tamit taalif nañ ci morit ci njabootuk sëriñ bi mooy sëriñ Sohaybu bu Mbàkke sëriñ Sohaybu bu kat bu mag boobu taalif na lu baree baree baree bari ci xam-xam dañ nañ ci tudd téere bi gën a siiw mooy quratul ayni naylul awtaar fi maa yukaffiru adunub bughyatul muridina wa ghunyatil mustarfidin nga xam ne moom ci arab la ko taalif bu dee quratu ayni moom ci wolof la naylul awtaar bale tamit ci arab la ko sëriñ soy bu taalif bokk na ca usulu tasawuf adabu tilawatil quran loolu taalif na ko ak ay taqris yu def ci yenn ci téere yi lu ci mel ne kalimatullahi yal oliya kon ñooñu rek ci njabootuk sëriñ bi ñooñu doy na ci sëkk sëñ Cheikh Gaynde Fatma xëy na waxtu yi duñu may ñu détaillé moom it bind na lu bëree bëri kalimatullahi al oliya ak sëriñ saalihu mbàkke mu Cheikh Mahamadul Moustapha na lu bëree bëri ak ku mel ne bii nga xam ne moo fi nekk Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayadahu llahu wa nasara bokk na ci ay taalifam assajaratu arramziya ila maani saadati l abadiya ci arab la ko bind kalimatu ijaas saxsiyatu cheikh mahamadul basir nga xam ne ci histoire sëriñ basiru la jëm bokk na ci yooyu ba tey diraasa boo xam ne da ko def ci saxsiyatu cheikh ahmad bamba bokk na ca yooyu mooy tagg bi nga xam ne moom la taggee sëriñ basiru anzim bi qaidi jundi xaadimi ahmada muhyi tariqati biddilaail xidmati ak uhibbuka ya ilahi hubban mutabaa ak way woo xam ni mi ngi ci way sëriñ saalix uhibbuka yaa sayxi wa musliha xaalina salaahuka min ahlil ilahi mushaahidu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen sëriñ abdul xaadir mi nga xam ne moom it euh, dañ ko fàtte woon waaye taalif na téere bu am solo muy xersul muslimin nga xam ne ci ay ñaan ak yu ni mel ci la jëm sëñ Modou Abdou xaadir taalif na ci soxna jaara ab téere taalif na ci Cheikh Mamadou Fadil ab téere donte ne sax xëy na gisaguñ ko waaye wér na ne taalif na ko bu dee bi mu taalif ci Cheikh Mamadou Fadil sëriñ Modou Mamoun Niang am na lu mu ci andi ci biir an nahjul xawim kon ñooñu rek ñooy njabootuk sëriñ bi su ko defee nag mag ñi àndoon ak ñoom ku mel ne sëriñ bu sa moom lim taalif daa bari lool ci fiq ci tasawuf ci wàllum tawxiid bokk na ca taalifam yooyu yi ci gën a siiw mooy amaanul balit min xatari taqlid nga xam ne ci alaqida ala al ci la ko taalif bokk na ca yooyu lisaanul aqiyata kallam fa ansitu lahu ayyuha sénégaliyun bokk na ca yooyu Euh, mooy xasida goo xamante ni mi ngi ko tàmbalee araka tuaati siara wal qalbu haimu ak boo xamante ni mi ngi ko def ci fànn rasmil mushafi sarif ak risala boo xamante ni mi ngi ko jëmee woon ci hakim bi nga xam ne mooy brevet nga xam ne jamono yu sëriñ bi moo fi nekkoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay taalifaatam sëriñ Momar Sey Nibraas Njàmbur nga xam ne kenn la ci ñi génnee ci école mam mam Thierno bii jàngee na ci mom taalif na téere bu am solo ci waxtani sëñ beug yu mel muy atamis tamyiz al-haqq wal batil waaye way na lu bëree bëri defal na marsiya Mamor Jaara defal na marsiya Cheikh mamadou mustafa defal na marsiya Cheikh mamadou Fadil ak ay murasalat yu bëree yu am digentem ak len ci mag ñi ci wàllu xam-xam ak yu mel digentem ak Cheikh Ibrahima Diop almasari ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon ñoñu ñen lañ rek ci ñaa xamne ci mag ñi àndoon ak bi talif lu bëree bëri sëñ Muxtaar bintelo talif na lu sëriñ Mouhamadou Diaw Baxa taalif na lu bëree bari waaye tamit sëriñ Moussa Ka taalif na lu bëree bari sëriñ Baye Jaxate taalif na lu bëree bëri sëriñ Mouhamadou Boussa di doom ci sëriñ Mbacke Boussa taalif na lu bëree bëri sëriñ Moulay Boussa moom it kadalika taalif na lu bëree bari ak sëriñ bu Boussa doom ci sëriñ bu Boussa taalif na lu bëree bari ñoom ñëpp di ay boroomi xam-xam yoo xam ne liñ taalif ci ay téere bëri na lool ci wàll way yenn di ay téere xam-xam su ko defee nag borom xam-xam yi nga xam ne ñooy dund ci jamono jii ñi nga xam ne nag ñoo ci taalif ñu tànn ci ñenn rek ngir njëkkante ak waxtu wi bokk na ci ku ne Serigne Cheikh Waalo Mbacke doom ci Serigne Ibrahima Mbacke mu Cheikh Mamadou Moustapha moom dajale nañ ci benn mañ moo boo xamante ni liggéey nañ ci ba dajale ko xëy na jombut balaa yàgg def na ko mool lu jëm ci ay wayam marsiya bi mu defal maamam Cheikh Saleh Cheikh Mamadou Mourtada Serigne Khadim Khalifa Darou Khoudoss Serigne Malick Touré muy Serigne Adi Touré Fass ak Zadul Hujjaj wal Mu'tamirin nas mu addaiyati aziyaara bil madinati al munawwara ak ay daawaat lu mel ne nas mu bi nga xam ne mooy xadmul quran bi jàng way na ko moom Serigne Cheikh Waalo Mbàkke doon téere bu am solo boo xam ne bokk na ci ay taalifam waaye euh, ku mel ne Serigne Xaadim Moustapha Mbàkke taalif na ci wàllum miiras téere bu am solo boo xam ne mooy tashilu siab fi ilmil faraid ku mel ne sëriñ Sohaybu Abo Kebe taalif na ci dunduk sëriñ Saalix ab téere waaye diraasa na tamit minanul baaxil xadiim waaye tamit taalif na lu bëree bëree bëree bëree bëri ci ay fànni xam-xam yu bare bëri yoom ne way na ci way na ci usulu fiq ab alfiya boo am te ni junniy bayit ci usulu fiq bu Kebe di sët ci sëriñ Saalix nee na ma sax tàmbali woon naa way ci mantiq tàmbali woon naa way ci falsafa tàmbali woon naa way ci mustalax waaye eggalewu ko nga xam ne fànn néew ñu gis ñu ci taalif yooyu yëpp nga xam ne ay way la ci def ak way ni mu jafee euh, bokk na ci tamit ñi nga xam ne taalif nañ lu bëree bëri ku mel ne Serigne Abdou Samad mu Serigne Abdul Xaadir Mbàkke doon borom xam-xam bu mag doon bindkat doon waykat danañ ci tudd yenn rek ana lastu an bi hamdil maliki ida antami lil ashari wa maliki doon xasida neex lool bokk na ci ay wayam kayfa usni alayka ya xayra haadin bada xawlil qadimi xaara midaadi ngam day mel ci tag yonnati bi alayhi salatu wassalam waye tamit xasida gi nga xamne ne la def ci taqris minanul bàyyil khadim bu sëriñ basiru nga xamne dako way andi ci yaatu buntu yaag lam lambo ci lay wax nan kitaabu minanil bahil khadim ahsanu ma kutiba fi sayhil khadim. ak yenn way yu bare bare yom tani yenen yum def ku ci melne serigne sëriñ abdourahman mii bind lu bare bare lu ci melne karisatun ak nasmu suwari at tanzil ala hasabi tartibiha fi nuzul tagna serigne sëriñ Touba ay yooni yon defal na marsiya Cheikh abdul Ahad Cheikh abdul Khadir defal na marsiya sëriñ salih defal na marsiya wajuram sëriñ abdul Khoudous defal na marsiya sëriñ Abibu mbake mi nga ab sëriñam la jàngal nako ak yenen way yu bëree bëri yo xam def nako serigne sëriñ Moustapha Saalih talif na tere boo xam mi ngi ko al ayatu tanzilu wa taariqu yusaddiq xam ñu ko mol 1999 wayna serigne sëriñ defal na marsiya Serigne Abdoul Aziz Dabakh ak yeneen ak yeneen ak yeneen bokk na ci ñooñu Serigne Mourtada Fadil di doom ci Serigne Fadil euh, Serigne Seexuna mu Serigne Mourtada Fadil di sët ci Serigne Fallou euh, téere bii nii rek nekk siñ kanam benn bi di faydul ghani al mughni moom mooy ki nga xam ne moo ko saraa tuddee ko al mughni fi maani faydul ghani al mughni way na tamit ci mustalahul hadis tuddee ko euh, yaakaar naa fatul qadir fi nadmi kitabit taysir kitabu taysir don téré bu am solo ci musalah mom mom la way sëriñ khalil mbake mu sëriñ basiru mu serigne fàllu momit bind na lu bare bare bare ci ay way bok na ci yoyu dalilul hayran aw kawkabu munawirul buldan nga xamne ci tasawuf la jëm ak mafatihul ulum wa mukaasifu al ghumum fi ilmi al mustalah ak mansumatu mawahibur rahman nga xamne mi ngi jëm ci ulumul quran al mughni anil asfari fi ilmi al faraid nga xam ci faraid la jëm sëñ seex mii nee na ma tàmbali naa way way yoom di nga ko jëmee ci riwaayatu wars waaye eggagut waaye saraana tamit téere boo xamante ni mooy noxbatul fikar mu tuddee ko kansul muftaxir li maarifati asmail xabar fi yi noxbatil fikar nga xam ne ci mustalax la jëm euh, bokk na ci ñooñu sëriñ abdul xaadir mbàkke mi nga xam ne rakk la ci sëriñ mamoor amdi moom way lu jëm ci werdul maaxuus tuddee ko فتح المزية في الأوراد المريدية وين تمت إرواء النديم تيرب إرواء النديم ببمت لب وينك تديكو مواهب المعين في عقد نصر سيخنا الأمين دون تيرب أم صلو أكمل نسرين صالح جاي دون قسكت وين لبري بري سلام الطلاب على طريق الإرث والحساب غمنا ميجي جم تميراس مصباح المقتفي في علمي عرود والقوافي غمنا تي عرود قوافي لجم أك منح الألباب fi nuqtatil huruf wal i'rab nga xamne ci walum nahwu la jëm ak safinatul usul fi lu jajil furu'i wal usul nga xamne ne mi ngi jëm ci xam xam usul ak ñeneen ak ñeneen ci ay kat yu bare bare ñu ci melni baye seigne sëñ Mbàkke Abdourahman Cheikh na Mbàkke Abdul Wadud al alhaaji ñay Cheikh Ndindi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ay kat sëriñ sambu sak ñom ñep bind nañ lu bare bare bare bare lu jëm ci ay téré ak ay maqalat yo xamanteni yu am solo yu ganjaru Sukade su ko Euh, ngir ñëw ci tomb bu mujj bi nga xam ne jàpp nañ ne moo ëpp solo nag ci waxtaan wi mooy yii ñu tudd ci ay taalifaat te doon lu bëree bëree bëree bëree bëri loo xamante ni waxtu yi mayuñu ñu tudd yépp détaillé ko ci bari dañ koy tëb leeral ya ca war daanaka duñ ko man ngir njëkkante ak moom lan nag mooy suñ taxawaay bi nga xam ne moo ñu ci war ñun murid yi taxawaay bi mën nañoo gis ne dañ koy tënk ci yenn ci ay mbir ku ne xam ne ne sëriñ bi ndono lii ëpp solo ci ndono lim ñu bayil moy xam-xam di ñaan mbolo mu ko ci ligéeyal wali yahab bi kulli harfin minha jamaatan khadimatan wa sunha Yosin suñu borom ma ngi lay ñaan ci al kubra bépp araf bu ne ci hasida gi nga may ma Tengah nyongal xam dañ may ligéeyal ta nga ñongal leen ar leen kon war nañ ligay ligéey bu baax baax ligéey bi moy lan war nañ ko dirasa war nañ ko tarjama muy traduire ko ci yenen langue yi ba nit ñi man ko xam waaye war nañ koo gën a bindaat dëppale ko ak jamono defaat ci ay leeral comme ni nga xamee ne noonu la ci yenn mbokk yi di taxawo su ko defee bu dee ci wàllum inaaya bi am na ci ñu ciy liggéey euh, liggéey nañ ci liggéey yu am solo lu mel ne dayra fatul ghafaar bi nga xam ne moo nekk fële ca maghrib rawdu rayahin ci wàllum dirasa dirasa nañ téere yu bëree bëri lu mel ne masalikul jinaan 2014 lu mel ne mawaahibul quddus 2015 lu mel ne aljawharu nafis 2016 ak yeneen téere yoo xamante ni ñu ngi koy isdaar waaye yi ñuy diraasa ci téere yi jëm ci xam-xam yooyu yenn la ci bu dee daayira bi nga xam ne mooy fatul gafaar def nañ ay anaaya yu bëree bëri bokk na ca manzumataani fil aqida wal fiq wa tasawuf muy tasawdu sigaar ak tasawdu subaan bokk na ca salaasu manzumaat nga xam ne dañ caa boole munawiru sudur maghaalixu niiraan jaalibatul buruur bokk na ca nahju xadaayil xaaj rabita xadimiya ñoom it ñu ngi ciy liggéey liggéey yu am solo ku ne gis na irwa un nadim diraasa nañ ko taqiix ko liggéey ci liggéey bu am solo ñoom abu madiana soy bu thiaw ak sëñ Mamoor Mbàkke di ak ku mel ne sëriñ naa mu sëñ Murtada mu sëriñ Fàllu ak ku mel ne sëñ Isaa yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ séqal liggéey bi liggéey ci liggéey yu am solo yoo xamante nii ci wàllum lu jëm ci euh, téré yi jëm ci histoire sëriñ bi lu melni ne irwa u nadim wala lu melni ne diwaanu Cheikh Ibrahima al-masari ak yeneen yi nga xamne ne ngi ci di ko liggéey te eggagut ñu ñaan yalla borom subhanahu wa taala sotal yoy yep su yenn liggéey yi nga xamne ay benn bennaan def nañ ko ci ay dirasat amna yom tini ay benn bennaan yoo ko def lu mel ne masjidaini nga xamne ne masjidu Touba ak Jurbel la ci sëriñ job Dagana din, wane taarix bi nim démé ak iswaram sëriñ na mbakke mu sëriñ Murtada Fadilu liggéey na ci liggéey bu am solo ci taqiix ko dëppale ko ak jamono waaye tamit jazaawu sakuur fii jawaabi Abdul Latif suñ mbokku sëriñ Murtada bu sa alqaadi ak seriñ Mamoor Mbàkke am di ñoom ñaar liggéey nañ ci liggéey bu am solo saadatu tullaab muy téele bi ñu waxoon sànq abu mariana soy bu thiaw diraasa na ko taqiix ko moom it mool nañ ko xëy na jeex na ci jamono ji ñu toll waaye doon téere bu am solo في غيبة الشيخ في الجزائر نحن سرنج بار موكو بني إستوارو سرنج توبا سنيو باكو محمد بامبا دارام ليجي نتش ليجي بام سلام ميت بوك نتش دراسة ديو ينغا خمنا دفنا نكو تي جامع عيو تي بري بري ميغا أمي نك ففي تي مغرب لميلة منسو متو جزبة الصغار دراسة تقيح مامور كا أغلميلة نسمو أم البراهين نحن دراسة تقيح سيد خادم بكي أكسلاه أهل الخوفي Euh, sëriñ Mouhamadul Fadil Mbacke mu sëriñ Mamor Fadilu ak al aqida al ashariya min xilaali manzumati tasawdu sigar dirasa ak taqdim abu madiana soaybu thiaw al aqida al ashariya al muassala min xilaali manzumati tasawdu subban ki ko dirasa moom mooy al albahis Mouhamad Sarr ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci ay dirasaat yu ñu defee foofu yu bëree bare bëri xëy na waxtu yi du ñu may ñu tudd yëpp waaye bu ñu ci tuddee yenn yi rek day yóbbaale ya ca des liggéey yu am solo yooyu nga xam ne ñu ngi koy tàmbali mooy saraa nag mbind sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa ñu bëree bëri dañoo jàpp ne téere yi leer na mëtto saraa nañ ko bàyyi na meloon am na ñoom gis-gis boobu lañ amee ba léegi waaye jamono buy dox dañoo war a dox ànd ak jamono moo tax liggéey bu am solo bii nga xam ne ñoom la waa dayre bi nga xam ne ñoo nekk fële ca maghrib di liggéey muy rabita xadimiya di saraa téere sëriñ bi doon lu am solo abu mariana soy bu caw saraana tasawdu sixaar ba mool nañ ko sëriñ naa mi nga xam ne moom laa tuddoon sànq moom it saraana al mughni fi maani faydil ghani al mughni nga xam ne sëriñ Tuubaa ma ngi ca way bunt ba jiitu ca risaala muy baabul aqida moom la ca way moom saraana ko saraa bu yaatu lool bokk na tamit ci ña xam ne liggéey nañ ci wàllum tarjama sëriñ sàmbay yàlla na ko yàlla yërëm liggéey na ci tarjama mbindi sëriñ bi lu melne ne masalikul jinan ku ne xamne ne ne traduire na ci langue français lu melne nahju khadail haj nga xamne ne nañ ko mu and ak bi nga xamne ne yi fatul ghafar mom lañu genné traduire nako silkul jawahir tradir noko, mul nañ ko ak hokal buka traduire na mol nañ ko to loolu sax amna cassette bo xamanteni day leral ne Serigne Abdoul Ahad mo ñew luga sakku ci mom mu liggey ci téré yoyu kon Serigne Ahad beggon na mindi Serigne Touba yaatu doon loo xamante ni dañ koy leeral ci langue yëpp ba ñëpp mën caa jariñu bu dee ci wàllum wolof bi ku ci mel ne sëriñ alhaaji Mbàkke mu sëriñ Moustapha Absa liggéey na ci liggéey bu am solo li ko tàmbalee ca tasawdu sigaar ba ca masaalikul jinaan yëpp firi na ko ci wolof firi mu leer nañ yi nga xam ne meññetum nangam la koy tuddee ba mu jeex téere par téere ak yenn ci dénkaane sëriñ bi waaye yëmu ca waxtaani sëriñ Tuubaa yi juróomi xaaj nga xam ne nett li yim jëlee ci mag ñi addiyaafatu samadiya moom it di ay xaaj yu bëree bëri loolu liggéey na ci kon loolu daal ci tënk lenn la ci téere yi nga xam ne mag ñi liggéey nañ ko ci lu aju ci xam-xam su ko defee nag taw tawsiyaat yi nga xam ne moom lañ koy tëjee laataa ñuy ñëw ci xaatima bi mooy nag lu mel nii liñ tudd ci ay téere ci ay téere yu bëree bari ci domaine yu bëree bëree bëree bëri day mel ne ba léegi am nañ ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu gëstukat yi gëstu am nañ ko waaye jafe-jafe yooyu ñi leen war a jàppale day mel ne ak seetaan gi ñu leen seetaan yooyu yëpp doon loo xam ne day tax liggéey bi na mu war a feeñee feeñu téere yu ci bare bëri murid yi boo leen di wax naan téere sàngam diraasa nañ ko du duñ duñ ko yëg ndax amaana nañ ko war a médiatiser ba mu tasaaroo des na bu baax a baax ngir ñàkk ay moyens ñu war leen a jàppale war leen a dëgëral ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal yoonu murid ci xam-xam ñu xam ne xam-xam mooy li ëpp solo ci yoonu murid buñ ko sàgganee rek day mel ne sàggane nañ lépp moo tax kon tawsiyaat yi ñu ngi ñaan ak a sàkku ak ci kilifa gu mag gi muy cheikh Mouhamadul Muntaqa ak mbokki boroom xam-xam yi nga xam ne ay kilifa lañ nekk ci yoonu murit ñu dimbale ñu rek tabaxal ñu benn markas boo xamante ni dañ fay gëstu xam-xam ak di tasaare lu aju ci njàngaleem sëriñ bi ndax yoonu murit soxla woon ko muy markasu saqaafa lil baxsi wa nasri al ilmi waaye tamit dañuy soññ ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ñoo tollu ci gëstu xam-xam liggéey yu am solo yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy liggéey ci seen dooley bopp seen coonay bopp daanaka néewaa nañu leen di jàppale téere yi ngal la buñ ko génnee nañ koy jënd ngir jënd giñ koy jënd dana leen gën a ñaax dana leen gën a soññ ñu gën a am farlu ci liggéey ndax daanaka téere yi léeg-léeg da nga koy yor boo koy wanee kenn mu ne la gars yi seen téere yi li koy jaayee daa seer te suba boo génnee mën ngaa dem jënd téere boo am ab naar moo ko taalif mën nga ko jëndee dix mille mën nga ko jëndee quinze mille lan moo tax léegi ñu naya def ci suñ téere yi nga xam ne suñ doomi réew ñoo ko bind muy téere yi sëriñ Tuubaa téere yi mag ñi àndoon ak sëriñ bi nañ leen dimbale jënd téere yi téere yi jar ñu mën a liggéey liggéeyal sëriñ Tuubaa balaa yàgg téere yépp ku ci amoon lënt-lënt dootoo ko amati loolu liggéey la bu ñu war a liggéey bokk na ci tamit li ñuy saraxu ak di ko yalwaan ak di ko ñaan muy mbooleem seexi sëriñ bi ak kër sëriñ Tuubaa yépp nañ ñu dimbale bindal ñu jaar-jaari mag moomee ba ku jugoon bëgg a gëstu ci mag ma man coo am lu leer waaye ay riwaayaat yu ñuy nettali rek la léeg-léeg boo jógee di bind ci menn mag boo laajee kii da lay nettali lii kee nettali lee dat yu wute yeeg yi yëpp su fekkoon ne waa kër gu ne bind na ab téere ci mag mi nga xam ne mooy seenu mag yaakaar naa jafe-jafe boobu dana dañ tey dana doon ab dellukaay boo xamante ni danañ ca mën a dellu bokk nañ ci tawsiye yi mooy nag takwin benn commission boo xam ne ay boroomi xam ay kàngam ci yoonu murit ñoom ñoo koy séq ñu topat téré yi téré yi bari nay njuumte lool téré yépp nak bari nay njuumte lool danaka bo ci lire bam jeex te gisoo ci njuumte dana jafé lool kon loolu day melni top ga mo dess ñi nga xamné ñoy yëngu ci xam-xam danaka amuñu jot dañuy bok rek ni may wana liggéey bari bari dañ koy bok waye nañ leen dimbalé nak waye defal leen barab spécial bo am dañ leen di jël weer wu dé ñu am luñ leen jox ñu liggéeyal Seigne Touba yaakaar naa loolu bu ko defoon ñu bari bari lañ japp akus néew danañ ko bayyi liggéeyal sëriñ bi ñu top téré Serigne Touba yi top gu wër ba téré yi fum dem kuko mëna yor bo liré do ci gis lén luy nuro ab sik ba nga cay mën a naan lii nak ko def wala serigne bi def ko waye njuumte yu bari bari nak du serigne bi gaay yi rafet loxo mel man arut jangunyu nahu jangunyu sarfu di jug di bind ay téré rek di tassare rek di jum jum yo xamanteni ni léeg-léeg da gis njuumte yu doy war serigne Abou Madiana Sohaybu Thiaw yàgg na yi serigne cheikh mi xamna ci dara yu bëree bari ci ay njuumte yu bëri yu ne ci yenn ci xaside yi da koy jël andi xaside gi ak fam nekk def ci benn croix buy wane ne lii njuumte la wan andi ba nga xam ne mooy saxiix te njuumte yu ci baree bari léeg-léeg gaa yi yëngu ci xam-xam soo ko wanee ñenn ñi dañ naan lii du njuumte ndax lan dañuy jàpp ne daa siiw ay mag ñoo ko bindoon di ko toxalante ba mu egsi fii te léeg-léeg ay njuumte lay doon dañ ko war a liggéeyaat te saare ko ñu xam la nga xam ne moo ca wér ak ya ca dugg yañ ca boole ak ya nga xam ne bokku ca bi ma bi ci gën a am solo nag ci taw tawsiya yi mooy maxtuutaat yi mbindi loxo yi mbindi loxo yi ñoo ngi yalwaan ak a saraxu ba tey ci taalibe yépp taalibe sëriñ tubaa yépp lay yalwaan ak a saraxu mbindi loxo yi njor muy mbindi loxoy sëriñ tubaa di ay téerey xam-xam mbindi loxoy sëñ baara di ay téerey xam-xam sëñ fàllu di ay téerey xam-xam ba ñépp jeex nga la waay nañ ko génnee jox gaa yi liggéey ci xam-xam ñu liggéey ci téere yu baree bari réer na yenn yi max ya lekk na ko yenn yi tawte na ba yàqu yenn yi suulaale nañ ko ay nit yenn yi ñu ngi koy denc ci ay barab di ko barkeeloo yenn yi ñu ko yor duñ la ko nangoo wan dañ naan na mi ngi nii xoolal rek daal di cay yam duñu la ko nangoo jox te yooyu xam-xam la dañ ko war a génnee doon lu ñuy denc d'accord naa téere yi nga xam ne ay secret moo ca ne yu wër te génn ñu denc ko ci gaal yi kenn du ko gis ndax sëriñ bi am na ay téereem yu dencoon waaye téere xam-xam yi doonul lu ñuy denc nañ ko génnee mi loxay seigne touba koyor yi gaay yaangi ko yor bari le ko lol waye gaay yi di rasa seigne ahmadou mi xamna ci dara leg leg dang koy soxlo kilifa yor ko waye bo demé du ko jox te mom dalay werna yor nako ko nango joxe legi nak lol lan lay nur legi lan lay nur. te seen mbind loxay amna ma ngi proposer tamit maktaba be nga xamne moy maktabatu Seyxul khadim di bibliothèque ba nga xamne Serigne Abdou Lahad moko ko ci daaray kamil barki dem rek ma ngi fay dem di len ko juñu na len qismul makhtutat da fe wara am ab xaaj boo xamante ni dañ ko war a jagleel mbindi loxo yi mag ñi waaye amu fa am na ay mbindi loxo yu fa am waaye yi yi tax may wax man amu fa mbindi loxo original yi nga xam ne daa am ñu copier ko delloo ko seen borom yooyu lañ wax yooyu dafa war a am ndax dañ koy soxla di ci liggéey waaye di barkeeloo ay téere xam-xam yoo xamante ni da nga koy denc wax dëgg yàlla loolu man mën naa ñàkk daal damaa xamul léeg-léeg jubluwaay bi lan lay doon ñu koy def lan lañ ci jublu ndax dañoo bañ Dal, do xam dal lan la dal leg leg dal da ngay dem ba muju da ngay jaxle xamna nak yenn yi mom ay kilifa dañ ko yor motax do ci mën wax len lu yalwaan rek dañuy yalwaan rek ci kilifa yi ko yor xeyna na bu ñu déggee ñi ngi yalwaan ngir jëmmi yalla ak seigne touba nañu gennel téré yi ñu jariño ko tasaare ko aduna bépp jot ci ñu man ko jariño mëna xam seigne touba mëna xam ñi andon ak seigne touba ndax jot na sekk nak ñu xam seigne touba té nak seigne touba bala ñu xam deug deug li mu bind nañ ko jital leneen luñ cey tek ñu door ko tek net li ñi net li baxna na lool waaye buñ tasaaree mbind serigne touba mu egg ci aduna ñu bari sik sàkka yi ñu amoon day dal di jeex ndax serigne bi lim bind leer waye ñun yi ñuy wax di ci duggal yu ci bokkut di yok di wañi yoyu moy andi laj laji kon ñogi jéglu bu baaxa baax xamna tem bi day tem bu gudda gudda gudda gudd bo xamne ne ko ci barab yu melni baxna lol na dañ koy jema talxis rek xeyna document bi nga xamne ne lañ bind inshallah jombut dinañ ko gëna yaatal mutasaro ba mu Yuko ci mbokk yi ko soxla man ko am ndax yaakaar naa document bi moy ëpp solo ci nga xamne dañ ko soxla wo di jéglu bu baaxa baaxa baax nak ci bépp njuumte boo am na ci di santat wa mu asasatu alwafa di sant bu baaxa baax serigne ahmadu don ko xamanteni wax deug yalla kuñ nawla ci xam-xam waye kuñ fonku la kuñ jox cër la waye kuñ bëgg la ngir liggéey bi nga xamne ne lay liggéeyal serigne touba te ñun ñëpp ñu gis ko muy ndaw di ci sonn guddii ak bëccëg suba ak ngone te amaana tey jii xat na am na yeneen yu ko waroon waaye mi ngi sonn ci xam-xam di tasaare njàngaleem sëriñ bi kon day mel ne moom xam na masuliya bi nga xam ne moo war ci njabootuk sëriñ bi war ci taaribey sëriñ bi ñu bañ a xaar kenn ci dara lu waay man defal ku mën a di raasa di raasal ku mën a bind bindal bool xaar naan ñii waa kuréel sàngam ñoo ko war a def waa raw du ñoo war a génnee nangam waa fatul xafaar ñoo war a génnee nangam waa liggéey nañ leen jàppale ñu nit yiñ mën a liggéey ñu cay liggéey ñoo ngi jéglu lu ci leer yàlla lu ci dëng doom aadama la ak matadeem wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ci jiital kilifa kilifa yi barab bi waaye di nuyu waa mu asatul wafa gi nga xam ne buñ jëlee nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel gi dañ koy teg seen loxo ñu jottali ñu ko ñu nekk ñëpp ak waa dëkk bi di sant mbokk mi nga xamee ne moo ngi doon def waxtaan wi di sunu xarit di koo xam Euh, kenn la ci ñun muy sëñ Mbàkke Jóob Xudar waxtaan wi nag niñ ko bokk déggandoo ko ñun ñëpp am goo xam ne am na ko solo am goo xam ne am na ko solo ak yittewoo goo xam ne war nañoo yittewoo jëm ci ba mën naa am sax jumbut xataayu waxtu wi moo waral lu ci bëree bëree des ko bàyyi gannaaw waaye tudd li nga xamee ne moo gën a ëpp solo rek ñun nak man nañ ne ay taxaw seetlu luñ ci am lepp da ko tuddaat ci biir waxtaan wi waye bokku na ca rek ku nekk ne ne bala balaa am da am lu ko jitu muy jang jang momuy nak buñ dé xol Sénégal wala ñor Touba gi nga xamé né moy dekkup bi nga xamé né xam-xam rek taxone borom sosko am na doxin wu ciy doxe woo xam ne mën nañ ne niveau bi mu toll kawe na lool waaye war naa gën a kawe bu baax a baax a baax ndax mën naa am ñi ngi fiy génne di dem ci yeneen barab di dem ci yeneen réew yeneen dëkk di fa fekki doomi jàmbur ñu leen di jàngal te mbooleem lépp loo xam ne ña ngi koy jàng ci barab yooyu noonu waroon naa mën a fekk baax fii ci biir Touba ndax am na fi boroomi xam-xam yu mag ñi ngi fi ñoo xam ne fànn gu man di doon ci xeeti xam-xam yi ñuy génn di ko jéggaani ñu ngi koy jàng bal am na ñoo xam ne sax suñu borom defal la leen tawféex ak fatxu goo xam ne seenum njàng mën nañ ne soriwu des koy lim ci ay at yu néew yu tënku te xeet goo indi suñu borom ubbil na leen ci ba boo ko tegee ñu jàngal ko moo xam ci basan gi la moo xam ci bank bi la loolu it kon war nañ cee gën a soññaan ndaw ñi xeeti jàngukaay yi nga xamee ne ñoo fi nekk ñu gën koo defaraat bu baax a baax li nga xamee ne mom lañ wara jangal mom moom lañ war a ci biti ñu jang ko lool nak am nañ ci yaakar bu baax a baax Seexu ibn muntaha yalla na suñu borom doole sammu te ar ko te yagal ko fi amna ay mebet ak naal yo xamne ñaan suñu borom mu eggal ko la waye mebet yoy ak naal yoy sa su egge gem nañ ne lepp lo xamoon jangoro la ju nekkon ci walu gogu lu ci bëree bëri dina safraw lool nak na nek aw yoon wo xamne wu la rek wala wum nek ci kaw bu dikke ñeneen ñeneen di ci topp ba muy egg fa mu jëm incha allah kon ñu gën a jàngalaat ndaw ñi bu baax jàngalaat leen li ñu nekk surtout jamono jii ñu toll nga xam ne léegi mbir yi dafa tisaaroo dafa yaatu àdduna bi bu njëkk dafa nekkoon ay àdduna wala ay réewi réew waaye mën nañ ne léegi benn la te benn àdduna gi mën naa jur njariñ mën naa am njariñ waaye mën naa am ay lor dana dem ba yow sa néeg bi nga nekk jàpp na yaa ngi sa biir réew fekk yaa ngi réewum jàmbur ñu jël ci yeneen yi fi jàmbur di la ko jox nga di ko soloo ci néeg bi nga nekk wala ci salle bi nga nekk te doo ko yëg ba da ngay mujj fees del boo génnee nekk kaneen lool nag dañ cee war a bay waar man damay gën a sonne surtout ñaar yi ñu gën koo jëmbataat ci xam-xam muy ashariya ak at tasawuf fii mën nañ ne tasawuf dëgg dëgg dëgg dëgg dama xamul dañuy am euh, benn dañoo gis niveau bi amatu naas fi ñu toll ba duñ ko jàngale wala duñ ko waxtaane wala duñ taalif jëm ci waaye war nañ di ko mën a jàngalaan ndaw ñi ñu xam ko bu baax lan mooy tasawuf ndax tasawuf mooy islaam ju sell mooy xolub islaam mooy ruug islaam kon bu fekkee dañ koo suñ ndaw ñi dañu gën a yittewoo ci yeneen xeeti xam-xam di xeetawoo xëntawoo di euh, nekk ku géejul ci harut wala ku géejul ci balaaxa wala ci mantiq loolu am na solo naam waaye yooyu ay jumtukaay la yeneen yoo xam ne bala ngaa mën a yóotu jumtukaay da ngaa war a fexe yooyu fekk yooyu mu mat sëkk sëkk yooyu war nañ cee gën a bu ko defee nag ñu ni ko suñ Mbàkke doon waxe ci waxtaan wi muy ci wàllum bind gi am na ñaari bayit yu mu tudd ci tàmbalimaa gi yooyu rek dooy na sëkk ci ñu war a gën a sonne ci wàllum taalif alxattu yabqaa samaanan baada kaatibihi wa saahibul xatti taxtal mat matfuumu maanaam bind dafa am solo day jeexital ci ki ko bind waaye day jeexital influence ci ki nga xamee ne day jël téere bi di ko di ko di ko di ko di ko jàng ndax képp koo xam ne yaa ngi bind yaa ngi yokk xam-xam yaa ngi dundal xam-xam waaye yaa ngi wane yow sa sa tolluwaay fi nga toll ak yaay kan maa ngi ko wax sëñ Mbàkke sànq ci biir faydul xaniyil muxni bi nga xam ne sëñ bi da ko way mu nekk muqaddimatu risaala way gi dafa am solo lool ndax maanaam sëñ bi ci jamono yu mujj yi la ko way waaye boo jàngee mansuuma bi da ngay xam sëñ bi tolluwaayam dëgg dëgg dëgg li nga xamee ne moom la gaa yi doon werante ba jamono jii ñu ciy werante mutasawifuuna yi ak yeneen firqa yi daan ci bind ay téere di ci raddante ba mu daa indi ay xeex seen biir sëñ bi position ba mu ci am da koo leeral ci biir mansuuma bi ci ci tënkal la ko ci lu lu leer lu gàtt te indiwu ca yeneen yi nga xamee ne moom la ñu jëkk ña daan nekkoon di bindu téere di takk fiir nit wala di ko tas euh, tabdiya wala yeneen ak yu noonu loolu it aw yoon la woo xam ne das cee war a jàngewaat bu baax a baax am na solo lool ni ñuy def nii di taxqiq téere yi di ko diraasa am na solo ndax téere yi ni mu mel keneen ku bukkutoon wala keneen ku minutoon ñun suñu yaxu daara yi ñu yor soo ko tiimee di nga ko mën a jàng dana mën a génn ci réew dana mën a dugg ci maktab islam islami yi nga xam ne moo nekk ci alam bi waaye dañ cee war di boole yoon wi nga xam ne jug nañ muy saraa saraa yi dafa am solo bu baax a baax a baax ndax buñ ne sëñ bi bind na lépp leer na naam loolu wér na waaye lu woon sëñ bi ay nit yàlla ñi ngi daa bind seeni jël bind dañ koy jël di ko leeralaat di ko saraa nekkul ne da ngay jël ka ka waxoon wax ja nga jël fa dind fa teg fa jeneen wax wala nga am wuuteeg moo ay gis-gis waaye leeral la saraa bañ nañ ko ba ne saraa ni ñu ko wax xamee ci ñun wolof mooy leeral baatu asarxu dëgg mooy saraa leeralal ma lii kon loolu dafa yell dafa jaadu te bëri na ci mbind yoo xam ne faw nit ki ñu saraal ko ko mu dog ko ko mën a xam nit ki doon di indi lu yees loolu ci wàllu bind bi dañuy war di fexe di indi loo xam ne lu yees lay doon waaye bu ñu topp la nga xamee ne rek moo fi nekkoon jamono ju nekk ñu koy iaada di ko takkaraar di ko indiwaat di ko indiwaat waaye dafa bokk ci tatawur nit ki buy indi mu fexee indi loo xam ne lu peq la luñ mën a duut baaraam la xam ne lii la waaye bu fekkee euh, daa am lu fi nekkoon yow nga indiwaat même chose loolu day mel ne daanaka la fi nekkoon a fi nekk ba léegi rek ak yokkute amu fi dëgg la am nag ci ki bind moom mën naa xaw a am jeexital ci moom waaye ci ñi nga xamee ne ñoom lay delluwaat ndax ñu bëri ci téere yi léegi mën naa am duñ ci sawara lool lool lool buñ jëlé ben téré dañ nan téré bi di amna ko masalan deug na naam nak téré yu bokk ben fan nga am ci yu wuté bari na waye tafsirul quran masalan amna ay tafsir yu beri beri beri, bëree bëri kenn xamul ñaata tafsir mo am waye lu mu beri beri bëri ñatt ñent juroom nga ci mëna jël jariñoo ko yee ya ca dess anam ñaneen jël wala mu dem mu nekk ci ay bëreep kon dañoo war di fexé di indi lo xam lu yees la bañ di fexé bayyi bañ di fekk lañ fekkon rek ñu ñëw ci diko ko ci waat waye ni ko noonu yi lu am solo xamna li nane ñu bokku teen ñoy laxasoo ay goj bi may bind tom boobu man na am egsee gu ci euh lu melni khilafatul muridiya wala tariqatul muridiya bi sifa ama ñi ci nekk ci khilaf ñi nga ki nga xamne mo ci bu egg ci bopp bi di khalifa bi hafizullah waye ñi nga xamne ñoy ay talibe te suñu borom may leen ñi ñu am walum xel ñi ñu am walum katan ñu fexé am barab bo xamne la koy taxaju a jug lenn dong lay doon muy kep ko xamne bindati nga ab téré ba pare da ngay dem gaaral ko fa ña nga xamee ne ñoo fa nekk ñu warlu leen loo xam ne dañ leen ko yor muy seenub dund yoo xam ne mu mënuñ koo lu ñu yittewoo la te dañ koo waroon jéggaani ñu leen ko fay fekke bu ko defee ku bindet danga nga ko fay jox lay wéral ga lay topp ga lay sellal ga lépp ñu def ko ca ba bu baree nit ñi mën koo jariñoo suñ bi wax na ko léegi am na tudd bu téere bu mu tudd ci biir man boo ko gisee ci Facebook laa ko gisee dama fexe ba am ko ba jënd ko waaye baa ko mënuma koo liir ñetti fan mu egg ndax lan ay yàq yu bari yoo xam ne man dama ci du ma xam sax lii man maanaa wala lii la loolu lu ko waral mooy rafet bind yi rafet loxo yi di nga xam ne dañu jug di bind kon loolu war nañ cee mën a gën a gën a gën a kii bu baax a baax a gën a bàyyi xel baax sëriñ bi moom bindal nañu mën nañ ne lépp lu ñu soxla boo bindal ko li ëpp solo ci dunduk doomu aadama war koo jariñoo li ëpp solo ci mu war koo jariñoo mu war koo eggale fu ne sëñ bi bindal nañu ko loolu nag trois la boo xam ne waruñ koo bàyyi rek mun nii waaye war nañ ci gën a sonne bu baax a baax a baax gën koo jàppaat mu fexe gën a weesu fii mu nekk bañ a yem suñuy loxo rek waaye mu egg ci loxo ñeneen ndax li nekk ci suñu loxo ñun te nekk jóge ci ñeneen bëri na lool dañoo war a fexe jóge ci ñeneen ñëw ci ñun ñu fexe ñun li nekk ci ñoom ñun egg fa ñoom loolu ay aw yoon la ci xam naa daanaka duñ ci guddal ndax mel na ni waxtu bi mi ngi ci di jeex te mën naa am euh, leeraayug làmmiñ ak euh, li am ci nekk ci xol bi bëgg koo wax mënuñ ko waaye dañuy rafetluwaat jataay bi di ñaan ki nga xam ne moo doon def wi Eh, suñ borom defal ko tawféex ak ndam te gën koo dëgëral ba message yi nga xam ne mi ngi koy bëgg a jàllale jamono ñu nekk ndax moom mi jàmbaar la te ndaw la eh, toll fii mu toll yitte woo xam-xam wax nañ ko ci tàmbali lu tolloo ñeenti téeméeri baas ak lu topp def na ko ci ay majaal yu wuute yii ci ay siira la yii ci ay maqaal la yoo xam ne day dëppoo ak jamono mu bind ci loolu lépp dañ ko war a dañ ko war a diir dañ ko war a Euh, tanwi gën cee soññ ndaw ñi ñu gën cee soññ bu baax a baax wax di ko ñaan suñu borom moom ak ñi mel ni ñoom suñu borom gën leen a dëgëral gën leen a sàmm ba li nga xam ne bëgg nañ ko ci xam-xam bëgg nañ ko liggéeyal Seexul Xadim ñu am ci ndam waaye di santaat mu assasatul wafa di xam ne liggéey bi fu waaye man di toll ci àddina ñu ngi koy bàyyi xel saa suñ duggatee weeru koor ci Sénégal gii ak bitim réew xel yi li muy njëkk dem wala bokk na ci li muy njëkk a dem waxtaani koor yi am daaru diko top diko ubil ay groupe whatsapp diko jallawat ci internet bi muy gën di tasaaroo kon yalla neen suñu borom defal euh mu nekk aw yi wo xamne du dañ mukk di law ba yeen seeni sët ke seeni sëtaat sëtaat nit ñi di ci jariñu alaykum wa rahmatullahi wa jere jërëjëf sëriñ sila ci taxaw setlu bu am solo bobu nga xamne def nga ko ci li nga xamantene mom la bi tun waxtane xamane dañuy dañuy jox kaddu gi rek mohammed mbake mi nga xamante ne moo jiite commision euh, communication ci wàllu ci biir kuréel gi su ko defee mu jottali ay kàddu yi nga xamante ne baaxoon nañ ko jottali ci bu ñu tàmm li liggéey bii muy kàddu yi ay cant ak kàddu yi ay leeral kon jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacké a'uuzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa man walah asalaamaaleykum wa rahmatullah sang yu tedd yi gannaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal Serigne Abbas ak mbooleem ñi nga xam ne seenu ku yàgg fi day ni ko alxuraan waxee rek allazina immakkannahum fil ardi aqaamu salaata wa aatu zakata ila akhir al aya di ndokel mbollem julit ñep rawat na ñi nga xamne ñi ngi dégg suñu kaddu ak fuñu mëna nek ci wéru koor wu sel wi di ñaan suñu borom ni muñu mayé niko suñu kilifa gi ci jotaay bi waxé seigne abdou samad suñu borom may na ñu ko tal ko man ko euh ñu ci sant suñu borom ci ndokel julit ñep ni nga xamee noonu lañ ko baaxoo mooy muassasatul wafa bi xuququl iman at mu jot bu weeru koor wi tàmbalee day taxawal yu mel nii nga xam ne li ci gën a fees mooy dundal xam-xam ak tasaare ko di ci dimbalanteeg mboolem fu boroom xam-xam nekk euh, du ñu xool fa nga jóge wala fa nga dëkk li ñu xool daal mooy nga am xam-xam bu am njariñ boo xam ne mën nga cee jariñ askan wi Eh, li ma waroon njëkk sax mooy cant gi ma tàmbalee ko ci sëriñ Mbacke Diop mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi ci tam ci tomb bu am solo bi nga xam ne ni yoonu murit yittewoo bind ak taalif te ku ko déglu xam ne yittewoo gi am na ci lool ndax liñ fi dégg ci ab lim ci ay tawaalif bari na lool tambale ko ci moom ci boppam misaal la ci eh, taalif ndax mm, taalif ak yittewoo ko ndax ay téeméeri téeméeri téere yoo xam ne gëstu nga ci loolu e, lu am am solo la xam naa sax waxtu wee waaye xam naa ne ab gëstoom ak li lim naroon wax mën naa am doon na ëpp loolu ndax e, li may fedd li tuuti ci lim doon wax rek mooy ñaan gi ñuy ñaan ñu taxawal barab boo xam ne ñi yittewoo taalif ak di ko tasaare danañ ca mën a nekk loolu mu junj itam ci kër gu nekk war a yittewoo mag ma fa nekk loolu tamit ñàkkul loo xam ne jot nañ cee séq ay jéego ci misaal euh, barab bi ñu nekk muy daarul moxti rek ku mel ni Cheikh Mamadul Bachir moom boroom daaru taalif na téere boo xam ne xayaatu euh, Cheikh Ibrahima Fati fi ayaamihil xaalida loolu ab tàmbali bu am a am solo la boo xam ne nun war nañ cee mën a euh, yokk suñuy gëstu ak suñuy góorgóorlu ku mel ne Cheikh Mamadou Mourtada moom Serigne Cheikh Fati Fall téeram boobu tudd xayaatu euh, Cheikh Ibrahima Fati wala téeram boobu tudd al muridiya nga xam ne daanaka delluwaay la ci yoonu murid naka noonu xëy na itam kër goo dem ñàkkul ne ña ngay taalifa ak tàmbali tàmbali liggéey boo xam ne li mu laaj rek mooy noonu ma ko waxee kilifa yi jàpp ci mu jëm ci kanam euh, kàddu yi yi nag. ni ngi koy tàmbalee ci euh, alwafa mi ngi koy tàmbalee ci ñi ñi ñuy wooyee ndax alwafa sax ñëpp membre lañ ci moom moom ku xam-xam yitteel rek euh, membre nga ci alwafa waaye ñi nga xam ne dañoo bokk ci commission yi ñoo ngi leen di sant donte lu lu ci waay def boppam rek la ko defal ñoo ngi rafetlu taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ngir liggéey bi jaar yoon di sant waa dëkk bi teewaay bi ak mboolem ñi nga xam ne dañuy jot li xabaar yi muy rajo yi xam naa xëy na liste bi sax danañ ko tudd ak yenn ci télévision yi nga xam ne ñooy jàllale wax ji ndax mu gën a yaatu alwafa nag yittewoo gi mu yittewoo xam-xam day noonu mu tudd rek alwafa bi xuquqil iman la day responsabilité boo xam ne eh, dafa gàllu ci aw loosam mu di ko bokk ak nag mboolem fi boroom xam-xam nekk eh, xam-xam bu nekk dana fi génne yi fi génne yépp yi tamit yuñ jàpp ne yu yu amal njariñ askan wi la xanaa ñu bàyyi loo xel rek ne e, loo fi xam ne xalaatub maanaam xalaat li ñuy li ñuy tuddee yu sax si maanaam nga xam ne kay wax moom moo gisee noona lu ca dëppoog liñ doon séentu ci moom muy muy maanaam muy njariñ ñun moom ñoo ko bokk loo ci xam ne nag day xalaatam day day xalaat boo xam ne moom rek xëy na la yitteel itam ñu jàpp ne rek moom loolu xalaat boobu moom xalaatam la waaye aloofa moom li ko tax a jóg rek mooy ubbiku ci mboolem fu boroom xam-xam mën a nekk ñu ñëw bokk ak ñun jataay bi ngir yitte woo xam-xam ji nga xam ne ku ne xam ne ku ne dégg na woote Cheikh Amadou Mountakha bu nga xam ne dafa yeesal li mag ñi euh, doon woote muy dundal xam ci di ko jàng ka jàngale euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wax na benn xadis ne képp ku faatu wala képp koo xam ne waxoo ci sam xel lu jëm ci jihaad man lam yu xaddis nafsahu bil jihaad yi maata ala shoxmatin min nifaaqi ku faatu te amoo woon te amoo yéene jihaad am nga lenn ci naafiq jihaad googu nag ku nga xam ne ne mooy mooy bi sëriñ bi waxoon rek inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhaminu shahidu mooy dundal xam-xam ak tasaare ko ndax moom la suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa jaahidhum bihi jihaadan kabiran jihaadul kabir jooju su boobu alxuraan di wax foofu du du yor ay ngànnaay di di dal ci kaw nit ñi waaye mooy fexe ba xam-xam bi euh, tasaaroo euh, gindi ndaw ñi nga xam ne jamono yi ñu nekk kon xam na ñi ngi dugg ci ay ay ay mbooloo yoo xam ne euh, léeg-léeg yéen a ju rafet mën na leen caa dugal waaye fekk ak réer rek moo xam-xam rek mooy li mën a gindi ndaw ñi tegaat leen ci siraatal mustaqima loolu itam bokk na ci li sëriñ Mouhamed Muntaxa di wax ci ay jataay yu wute yu bari bil Mustafa banal lil quddoosu madrasatan biha yasulu anna al jahlu wal aza wal kamadu nga xam ne li mën a indi jafe li mën a dindi jafe-jafe yépp moom mooy fexe ba njàngum xam-xam mi tasaaroo kon noo ngi dellu di sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci lu jege wala lu sori ci liggéey bi di def ngir mu jëm ci kanam di santaat bu baax a baax sunu gan yi nga xam ne eh, ñoo fi doon jël kàddu muy ay kàddu yu rafet rafet yàlla nañ su borom defal ak dégg aku topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.